voilà mi ngoog ñu nuyu leen rafetlu seen ànd ak sunay programme jaajëfal leen ci topp gi fii ci première chaîne de télé bu Sénégal ñu daal di dellu siwaat amaan mbégte janok yéen ni ñu koy defee suba su jot ñu yaakaar ni rek ngeen ci jàmm et que dinañ leen gunge tout au long de cette matinée jox leen li nga xam ne moom ngeen soxla ngir daal di koy tàmbali ci nu waree tey ñu ngi ci 31 décembre euh, décembre euh, ci année bi nekk i tamit euh, moo di bisub fête bis bu nga plateau ce matin c'est à nous tàmbali fii loo xamante ne day continuer maanaam euh, ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi dinañ leen dégtal lépp lu nga xamante ne moom ngeen euh, gënoon a yittewoo euh, ci atum 2018 bi noonu la ko 2STV defee nag tout au long de cette journée euh, fii ba minuit incha allah jox leen programme bu nga xamante ne loolu yëpp nag nañ ci dëxëñ lu jëm ci atum 2018 bi li ci jot a xew waaye perspective yi nga xam ne moom la ñu bëgg tëral ci atum 2019 file ci première chaîne de télé privée bu Sénégal waaye xam ngeen ni ce matin c'est à nous c'est une matinale d'information laata toute l'équipe de la matinale dañuy dem euh, jox leen li nga xamante ne moom moo jëm ci seen xibaar euh, laata kon ñu dikk ak yéen ci programme tey bi jëm ci xibaar yi doore ko ak euh, li nga xamante ne euh, moom moo jëm ci euh, mbirum parrainage bi ñenn ci membre opposition bi nag ñoom daal di rafetlu bu baax na nga xam ne noonu la mbir ya tëddee ba tax na kii di Zahra Iyane Thiam moom la mu jàpp mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo di opposition bi dañoo juum bu ñu ni mbirum élection yi la bëcc wala luubal daf caanara am ñeel nag ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall moom mi nga xamante ne moom moo di ministre conseiller boobu nag jàpp na ni lu tukkee ca élection bi nga xam ne moom lañ nar amal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2019 ñi di opposition bi dañ caa war a ànd ak ñoom ñu teewlu Zahra Iyane Thiam ay kàddoom mi ngi ko dénk Babacar Tombidou ci wàllu parenage bi ak conseil constitutionnel ni mu waxoon noonu la koy defee ñun ñëpp ñoo déggandoor kii di mandataire réew mi kii di mandataire u Pastef ne eh, xool bi saytu bi mucc na ayib te vraiment jaar na yoon kon ñun liñ leen di ñaan mooy bu ñu demee tamit ba résultat génn jóge ci urne yi nañ ko nangu ndax opposition bi fan yii yëpp mi ngi naan kujje gi li ko tax a jug tànk yi mu nekk mooy sàcc élection mais li ñuy fàtte mooy Sénégal ay banqaasam dafa dëgër muy ci wàllu yoon muy ci wàllu démocratie muy ci wàllu euh, institution ak gouvernance kon li am ba des mooy ñun acteurs politiques yi ñu xool suñu taxawaay mais xool également li ñuy wax ndax bu fekkee ne tey euh, kuréel wax na lu dëppook li nga bëgg nga ne gongo mu wax lu dëppoowul ak li nga bëgg nga xarab ko aussi du du dalal xelu askan wi te li am ba des aussi mooy Sénégal ñun ñëpp a ko bokk kon war nañu mën a lëkkaloo ci loolu wax Sénégal rek mooy gagné askan bi day tànn bu tànnee rek ñu ñu daal di nangu mais ñun Benno Bokk Yaakaar li ñu jàpp mooy ak suñu bilan ak suñu président ak suñu coalition premier tour incha allah mi ngoo ko ñu daal di desandi ci mbirum élection yooyee ba tey nag ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ligue des imams et prédicateurs du Sénégal daal dinañu amal ab janook taskati xibaar yi ni ki démb fële ci institut islamique bu ndakaaru bokk ca la ñu doon euh, jébbal ñi nga xam ne ñoom ñoo di taskati xibaar yi moo di seen jàkkaare ñeel élection falum njitum réew ñu dëgmal ci atum 2019 la ñuy sàkku nag mooy rek ñii di candidat yi daal di kon jëfee lu jëm euh, ci dal waaye tamit euh, saxal jàmm fii ci Sénégal ñu teewlu ki nga xam ne moo yor seen kàddu di Ibrahima Ndiaye ak ki nga xamante ne moom moo di imam Ismaïla Ndiaye ci micro Amadou Diaw. woote bis bi te mooy waajal élection yi ñu dëgmal incha allahu ci mois de février mu nekk xew-xew bu ama am solo pour nation bi ñu jàppoon ne ñun en tant que ay imam aki i sëriñ daara ñoo bett war nañ ko waajal ndax lu mel ni tànn njiitum réew day lu bu rëy rëy ci nation dina ji ñaate bari lu ñuy wax ay yitteem ci bëgg a falu ñu ne ren jii moom bu soobee yàlla ñun danañ ci wutu jullit yëpp ci loolu ñu tànn ay points yi ñu jàpp nga bàyyi revue de yooyu yitteel na l'islam tey ñu tënk ko ci ab document tudde ko mémorandum ci tomb yoo xam ni képp kuy candidat la nga ci tontu la ca gën fës mooy jëflante ci diggante état ak diine gi naka la ko candidat yi xalaate njàngum diine lislaam ci biir système éducatif bi niki noonu kuréel gu lëkkale mbooleem ñiy yëngu ci lislaam ci Sénégal tey wax ci seen kàddu loolu lépp ay tomb la yoo xam ne bu ci nekk jàngat nañ ko danañ ko teg ci loxo yi candidat yi ngir ñu tontu ci ak yeneeni tomb ba mu mat juróom-ñetti tomb loolu daal buñ ko buñ ko matalee mooy programme bi nga xam ni moom la ligue bi bëgg a doxal teqantal géeg euh, firi gi ma ngay amee bu liggéey bi yépp yembee ba ñu évaluer tontu candidat yi ba jàkkaarloo waat ak yéen wax leen liñ jële ci loolu

mi ngook ñu daal di àddu ci li nga xamante ne mu at bu jot ci bisub 31 décembre njiitu réew Macky Sall daf koy daal di amal muy message bi muy jagleel askanub Sénégal askan woowee sax ku ci ne yëkkati nga kàddu ngir xamle ana lan mooy say euh, attente ci mbir mu ni mel ñenn ñi wax ni kon faw njiitu réew Macky Sall yëkkati kàddu ngir dalal xel yi ci lu jëm euh, ci wàllum njàng mekk njàngale mi ndax nag yëngu-yëngu yi nga xam ne ñu ngi koy njoxtu ci wàllu woowe waaye itam tension sociale bi nga xam ne dafa yëngu woon euh, ci atum 2018 gi faw rek njiitu réew mi jëm jëmle ci lu ni mel laata kon ñuy sàkku ci euh, ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall ngir euh, mu daal di kon saafara jafe-jafe askan wi xaar nga xamante ne askan wi moom la ñuy xaar euh, njiitu réew mi ngir tey mu àddu jëmale ci ñu ànd ci reportage bu Fatima Diallo ak Alpha Bathily ci caméra bi. nim ko tàmm defee ci at bu ne njiitu réew mi Macky Sall dina jàkkaarloog askanu Sénégal 31 décembre 2018 askan wi nag di ko xaar ci lu bëri ci wàllu social ci wàllu njàng ci wàllu wér yaram ba ci wàllu justice. Eh, discours bi président war a def yaakaar na ne kooku sunu mbaax la at bu jot président bi bu dem ba fin nga def un discours de ko nation bi mu peuple bi eh, mais te discours boobu tam dañuy xaar si moom. am na loo xam ne du wax na ko ne année 2018 année sociale la kon yaakaar naa ne si la vole la volet social boobu nga xam moom la moom wax yaakaar naa ne ñu ngi ko ci xaar si lu bëri si loo xamante ne daal askan bi ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ko ci déglu boo li nga xamante ne bëgg nañ président dellusiwaat si mooy si secteur euh, santé bi bëgg nañ mu ñëw si si secteur éducation bi bëgg nañ mu ñëw si si si wàllu emploi bi sax bëgg nañ mu ñëw si ndax bëri na ay rëkk-rëkk yoo xamante ne ñun nation bi ñu ngi ko ci xaar ngir mu ci ay solution voilà donc man damaa bëgg suba Macky Sall allah mu wax nan lay def ba dimbale xale yi ñu am liggéey ndax dëkk bi métti na trop liggéey jafe na. surtout justice bi tamit war na ci mën a insister bu baax wàllu santé ak wàllu mbay mi loolu yëpp war na ci mën a gëstuwaat bu baax daal satisfaire besoin citoyen mënul satisfaire ñëpp mais mu satisfaire. Euh, le <clears throat> maanaam le minimum. non côté côté côté jàngu jàng bi ak kii wàllu santé bi tamit xam ak wàllu mu yombalal gars liggéey bi quoi gars liggéey. ñenn ñi ñoom jàpp nañ réew mi jafe-jafe yi bëri na ba waral ñuy xaar njiitu réew mi mu indi ci ay saafara ñeneen ñi moom discours bi nuñ ko jàppee répétition kese la. li ñu ciy xaar moom bëri na ndax réew mi moom fu mu nekk nii bu ñu xoolee jafe-jafe yi bëri na. su dee ci wàllu wér-gi-yaram mi santé bi am na ay problème mbay mi am na ay problème situation nit ñi tamit seen dëkkuwaay am na ay problème soo xoolee ci biir réew mi fenn fu ci nekk ña ngay gréew kon li ñuy séentu ci moom la ci njëkk mooy njiit daal suñ ko falee la mu war a jiital mooy ne yërëm aw askanam na leen di bàyyi xel na leen di fàttaliku loolu daal xam naa ne ñu ngi koy xaar ci daal li nga xam ne mooy jafe-jafe askan wi te ba muy campagne mu diggee woon ko ay at mu doon wër di dinaa def li dinaa def li ba nit ñi fal ko ak keneen kuy ñëw ëllëg it loolu la ñuy xaar ci euh, jafe-jafe askan wi donte mënuñu fajandoo lépp waaye nag le minimum. été euh, euh, discours yi li ma ci jot a xamee gum ay éternel recommencement la rek léeg-léeg gars yi dañ koy wax ci chaque fois euh, euh, ay répétition la rek cest à réew mi dafa politique trop quoi ñu wàññi ko mooy mooy mooy politique. yenn sénégalais yi ñoom dañu ñaax njiitu réew mi mag Macky Sall ci ñu ñuy woowee prisonnier politique waaye it ci koppar yi nga xamante ne daal dina koy jëlee foofee ca groupe consultatif bu Paris. surtout tëj bi sax moom la ñu seet ni nga xam ne bii ñooñu la ñu war a tëjee ñu tëjee ko nañu war a bàyyee ñu bàyyi ko parce que tëj rek pour tëj kooku. dafa doxul baaxul ci réew kii moo ànd ak man naa ko bàyyi kii ànd ak man naa ko tëj loolu bokkul ci luy doxal réew loolu bokkul ci luy doxal réew. milliards yi nga xam ne bii moom laa dégg ne moom lay dem wuti ji indi ko ci senegal gi milliards yooyu na ne ci disposition wu xale yi. nañ ci bë nañ ci dugal ci lu bëree bëri bëri xale njàng mi ñoom ñëpp ñu am jàmm ku nekk jàngal li nga xam ne ni moom nga war a jàng ci jàmm. bile discours à nation njiitu réew mi mag Macky Sall war ko amal nag askanu Sénégal ñëpp jàpp ni fu mu koy defee dafa tombeek ñu jëm ci wàllu présidentiel bu 2019 ba waral nag ñu koy ñaan mu waxtaan ak kuje gi waaye yit xefe ba élection yi mën a am ci jàmm ak salaam. mi ngoog ñu gërëm ko bu baax moom Fatima Diallo mbokk yi noonu la def ànd ak yéen ci li ma ko waxee sànq le programme ginnaaw bu ñu jeexalee li nga xamante ne moom moo jëm ci xibaar yi léegi léegi ñu dellu seek yéen ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fekk si ci plateau bi. ngeen di seen noonu kooku mooy kan Diallo. kan euh, tey moom la ñu fas yéene àndal tout au long de euh, notre euh, émission incha allah mu gunge ñu dégtal ñu lu nga xamante ne moom moo jëm ci ay notes de musique ngir nag. waajal guddi gi ndax tey la 31 décembre ni ma ko waxee sànq kon euh, bisu fête la euh, bisu mbégte la ndax euh, dund ba fekkee vraiment 31 décembre loolu mbégte rek la ñu ci la ñu ci mën a am ñun ñëpp di ñaanal ñi nga xamante ne jot ñu kon teewe li nga xamante ne moom mooy bisub tey bi suuf sedd ci seen kaw ndax bëri na rawatina sax ci li nga xamante ne moom moo di presse bi presse bi surtout bëri na ñu nga xamante ne kon génn nañu àdduna kon ñu ñaanal leen rek suuf daal woyof euh, ci seenub kaw tey nag ñu ngi ci plateau bi ak euh, ñi nga xam ne xëy na ñu ci bëri ci ñoom dañ dañ doon ñëw nii di dem ak ki nga xamante ne moom ci <laughs> salle bi <laughs> ci salle bi la daan des buy Fatima Silla Babou Ndour ak euh, groupe mode beauté ak nga xamante ne moom mooy Babacar bi du ñu ci des ci kanam dinañ leen dalal dañ leen di bàyyi ñu nuyoog ñi nga xam ne ñooy seetaan Babou. waaw na bëggee rek. yow bu su mbégte la comme ni ah. waaw di bëggee bëggee. Kumba ak Ziggy. Mm. sama waaj Fatima. ak booy bi. ak le le <laughs> ci lu jëm ci wàllu tàggat yaram ànd ci ak euh, Fatima ñu Timbia. Kumba Gise Zéhi ak Babou ak euh, Rakho Babou bi muy tàmbilu ak Nebu yow bi kan jàll ku ko. non man nii ma kan jàll de. man <laughs> bàyyi ma nuyu ko rek garaaw la. kan jàll euh, daaw. la ma amee dix mille francs daaw laa daaw. <laughs> Eh, naa xamoo boru daaw. bu nit ñi xasee jot tey dootoo daaw man nee naa ko bu sa bu ñu su ma kan amee na ma dix mille sama dix mille. non kan après man ñu ñëw ci waa parce que dañuy téléspectateurs yi dañu am habitude di ma gis si Saria ma yëngatu mais tey moom beneen facette lañu gis ah Fatima ñëw toog ci plateau bi nar a waxtaan ak yéen tey amul entraînement ah. jour de fête la kon on va fêter ensemble. mais Fatima sincèrement xam nga kañ nga gëjël def. Euh, tournée mm, mm. bi nga ànd ak waa Zumba xaw ma la. waa Zumba ñoom xaw nañ laa rey fa nga jaaree tay. non <laughs> dañu pasoon tamit xam nga nga benn tournage. nga dem ñëw mais nangu ne ñooñu rey nañ la bëgg a dee. non d' accord na amul ah, problème nangu nga. waaw nangu nga. <laughs> bonjour Seynabou ma ma lay nuyu di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa fekk ci plateau bi Fatima. Euh, le grand Babou Ndour ku ma gisee ak Ziggy euh, rawatina aussi téléspectateur 2STV. nga ne lan yoole yoole Seynabou da ngay yóole sa bopp <laughs> xale yi ngay yóole tey. waaw defee bu ñu tàggoo seen yaay ñu ne leen dem leen ngeen tëdd. au delà de ça sax ne eh, artu. Hmm. dafa dafa bokk si suñu métier moytul ñu koj la ci mbedd yaa ma yàqal <laughs> ci kanam tuuti nañ ci ànd ak moom ndax nee na dafa bëgg ñëw vraiment daal di yedd moroomam man nag xaw ma ndax da leen di yedd ba pare ànd ak ñoom tëddi wala da nga leen di yedd ba pare daal di rocceeku dem <laughs> mooy loolu ku ko gisee Nabou Ndiaye bonjour bonjour à toi oui maa ngi yàlla bu baax. naa. yaa ngi cool. waaw ci kanam tuuti dinañu ànd ak yéen ñëw ci li nga xamante ne moom moo di euh, ñu fas yéene waxtaanee. temps fort seeni rubrique ak yooyu du dëgg. ay ca ñu tàmbali ak sport ni ñu koy defee xam nga lundi bu jot sport lañu daan commencé sax. waaw ah, tey ñu def étirement ci plateau bi. étirement <laughs> eh, war nañ ko mën a def. non mais non mais non mais. c'est vrai da nga def tuuti gym après. si vas-y Fatima après ma seconde la. léegi da nga lii ma ma xool ma ma xool la. non man bëggoon man bëggoon naa téléspectateur yi am chance su gis Fatima Aho xam nga toog bi nii. Fatima kay taxaw na ñëw. Fatima est-ce que téléspectateur benn ñëw bët bu ndaw. xam ngeen jib xam nga dañuy wax sport. xaaral ma daaw damay daagu nang damay daagu ak talon yi. parce que tout le temps on dit que les sportifs ce sont des garçons manqués Fatima. doo garçon manqué doo dama garçon manqué. macha allah à travers l'écran da defar jigéen jigéen daal maanaam. Ah, na nga defaru nii yow ba pare. alhamdulilah ba am dama toog ayca <laughs> Babou lan la mën a euh, jàpp ci euh, atum 2018 bi ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu tàggat yaram. waaw li ci gën a fës euh, parce que mën nañu wax li jëm ci wàllum football tamit gars yëngu nañu ci bu baax. Mhm. muy nekk basket gars yi tamit yëngu nañu ci bu baax maanaam handball ak yi maanaam ay judo gars yi daal sunu ñi nga xamante ne ñoo di suñu suñuy sportifs yi nga xamante ne demoon nañu représenté raay réew mi ci yeneen dëkk yi tamit wane nañ suñu a baax mais dañ koy tàmbali ci li nga xamante ne xamante ne moo gën a fës euh, sunu seen bopp bu baax a baax a baax li nga xamante ne moo ci gën a fës mooy deuxième participation sunu gaynde yi euh, jëm ci wàllum coupe du monde bi ndax euh, ñëpp ñëpp xamoon ne mu ñëwaat si deux ans mu troisième fois mu war a ñu wax daje équipe yi nga xamante ñooy équipe sénégalaise yi ku ci mel ni jaraaf loolu war nañ ko jàpp le janvier bi ñëw ni na bu daa mel ni loolu daal moo gën a fës ci wàllum football léegi damay bàyyi ki nga xamante moo di Fatima Silla moom mi nga xamante ne demoon na si coupe du monde basket bi mu tënk ko rek li nga xamante ne moo di sunu si lu ñu war a maanaam lu ñu fa defee ak lu ñu war a def non tënk ko wala nga tànk ko. <laughs> waaw daanaka ah. a côté euh, jigéen ñi. jigéen ñi dem nañ Tenerife def fa benn parcours bu am solo dem doon pays bu ñëkk qualifié ci wàllu deuxième tour yi muy Lyon yi ñu gagné sax Lettonie benn point lañ ko gagné maanaam da amoon demoon nañ fa teew mais ak avec dem gis Lyon yi def fa benn parcours bu am solo jamono ji donte éliminé woon nañ leen mais seen parcours amoon na solo trop bu ñu jógee ci Lyon yi ñu gis tamit ci U18 yi dem nañu Mali def fa benn tournoi. ñu tamit ñu mujjee perd mais ci final bi bu ñu ñëwee ci talon ci côté local bi tamit gis nañ ne amoon na quelques incidents waraloon sax keroog bu ñu invité président fédération ñu ko ciy wax parce que gis nañu léegi basket euh, dafa commencé di am euh, comment on dit encore. violence te violence amul lii ci. amul place ci sport waxta interpellé nañ ci président bi gis nañu mu wax na ne dinañ def seen képp kattan ba loolu yëpp ñu jëm ku dindi ci wàllu basket bi. gis nañu tamit ne douane moo fa gagné jamono ji am nañu arena Dakar arena mm-hmm. mbëbët Sénégal mooy jamono ji organiser afro basket 2019. mais est-ce Arena rek doy na pour pour pour organiser. bien sûr parce que boo gisee nii Mali benn benn arena boobu la fa am mais gis nañu Mali dalal na Afrobasket tey jii bu ñu bëggee suñu Lions yi am tey jii raaya boobu maanaam gagné waat Coupe d'Afrique mun nañu am yaakaar ne bu ñu ko dalalee fii ci Sénégal Lions yi lañ gagné. Mhm. bu jógee ci loolu dañuy dem ci art martial bu ma waxee art martial nag sama xel dañu ci karaté <laughs> parce que demoon naa ànd ñoon ci ah. tamit ñu def fa am solo maanaam dem ba cinquième place mondiale. Mhm. dajeeg Italie. Lions yi tamit Lions karaté yi am fa lu bëri am fa def fa lu am solo bu tax ma def wax ne def fa lu am solo parce que jamono ji dañuy wut ay points jëm ci JO yi. Mhm. JO yi foog nga am ay points ranking mondial ngay wër Lions yi nag Lions yi nag dem nañ fa am fa cinquième place ñu war a waajal nag demaat Open de Paris bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëwaat ci Viet bu daaw. Viet bu daaw tamit am nañ ay trophées yu am solo. Mhm. jëm ci loolu. loolu moo gënoon fës ci wàllu sport. mais tamit bokk na ci tamit li nga xamante ne moo jëm ci wàllum handball. Hmm. ndax ñi nga xamante ne ñooy sunu gaynde yi tamit euh, maanaam bokk na ci satisfaction 2018 yi. ndax euh, ñoo demoon représenté li nga xamante ne soxna Mané boo ñu mënee may li nga xamante ne moo di balaa mu ngi nii handball. Mm-hmm. waaw sunu gaynde yi bokk na ñi nga xamante ne ñoo gënoon fës. Euh, ci atum 2018 bi ndaxte bu ñu demee fële ci Congo si maanaam ca Brazzaville ñoom daal dem nañ ba li nga xamante moo di ci bi Sénégal da dóor gannaaw bu mu dóor équipe bi nga xamante moo di Cameroun waaye waaye après bu mu qualifié tamit bi ñu demee ci li nga xamante moo jëmoon ci wàllum demi-finale mu quart final yi mu door équipe bi nga xamante moo di maanaam léegi nag léegi si demi-finale yi nag Sénégal dañoo daje wax équipe bi nga xamante ne mu nekk République démocratique bu Congo ñoom daal si lañ door équipe boobu xamante ne si quart de finale bi mu nekkoon match boo xamante ne compte bi ndax c'est bi ñu premier match ne ñoo yëngu ci wàllum handball jàpp ne équipe bi nga xamante ne moo di Sénégal moom daal moo war a mën a final ne mooy meilleure équipe ci li nga xamante moo di maanaam si Afrique mhm. ndax muy Angola ndax Angola 23 participation lañ lañ lañ lañ lañ lañ bokk ci Coupe d'Afrique bi waaye ñoom ñoo jël 13 par 13 ñu yëf ñu yàgg gars yi moo tax bi ñu bi compétition bi door rek experts yu bëri dañoo waxoon ne Sénégal ak équipe bi nga xamante ne Angola ñoo war a finalu mais gis nañu affaire yi mu demee ndax suñu gaynde dafa nañ seen kéemtalaay kattan joué ak Angola bu ñu bu ñu demee si premier mi-temps bi sax ñi nga xamante ne ñooy suñu gaynde yi ñoo mëne woon ñoo mëne woon ay euh, ñoo mëne woon si ñi nga xamante ñoo di Angolais euh, yi ñëw jël li nga xamante moo di maanaam maanaam trophée bi bu ñu waxee ci sport tamit dinañu wax euh, lu jëm ci parce que bu ñu taxawee ci bi wax ci vraiment discipline ku ci nekk wane nga sa bopp mais 2019 am na lu ñuy xaar muy Coupe d'Afrique muy Coupe d'Afrique boo xam ne nag Sénégal jamono ji mhm. bañ nañ ko ba sa Aliou Cissé amoon na ay coow lu bëri Aliou Cissé day des du que désillusion la woon bu ñu ñëpp dañu ñu dem yem premier tour jamono ji Sénégalais yëpp dañu teg seen bët muy coupe d'Afrique parce que Sénégal am na potentiel bi nga xam ne jamono ji coupe d'Afrique bi war a difficile Sénégal ci classement FIFA yi sax gis nañu classement FIFA moo mhm. nekk premier mhm. loolu nag war na tax mu gën a dëgël boppam fii ci dendu Afrique Aliou Cissé dañ ko yokkal payooram moom dañ ko yokkal payooram prolongé ko ba 2021. Ah. amoon na coow mais jamono ji Augustin Senghor nee na Aliou Cissé il sera là ba 2021. Mhm. bu jógee ci loolu dañuy dalal jauge muy lu am solo bi nga xam ne ne. Mhm. comité olympique def na ko ren. Mhm. dem. <laughs> comité olympique def na ko Sénégal war koo dalal mooy jeu olympique de la jeunesse. loolu di une première en Afrique keroog doon nañ ko am na benn waxtaan boo xam ne keroog ubbi nañ ko ak Diagne Ndiaye muy président. Euh, Konos ñu waxtaan ak moom par rapport ak dalal bi ak dayoo compétition bi. Mhm. naka la athlètes yi fas yéene. préparé mhm. bi la compétition muy dalal xel yi côté infrastructure sportive am na lu mu ci teg nee na fu mu toll nii seen bët yëpp mooy fexe infrastructure sportive yi pare. Mhm. ba ñu mën a dalal ci compétition bi lu mu bu mucc ayib. mënuma jóge ci loolu parce que am na ay génn yoo xam ne ñu ngi au niveau.

daaw moo xam nga moo jël meilleur joueur Angleterre ba pare jël li nga xamante ne moo di meilleur buteur moo te moo ki nga xamante ne moo di Sadio Mané mm. ne ñoo di euh, Mohamed Salah moo nar a jël li nga xamante ne moo di Ballon d'Or mais même sax gars yi voté nañu ba pare mais gars c'est pas encore officiel mais suñu bëri ñi nga xamante ne ñoo mm. yëngu ci wàllum tàggat yaram dañoo jàpp ne ki nga xamante ne moo di Mohamed Salah moo jël li jëm ci wàllum Coupe d'Afrique bi soxna Nabou. du tax ma mais mun naa mun naa daaneel foofu parce que dama naan. fii ak da ngeen daaneel da ngeen di daaneel sax nag. <laughs> waaw daañu daaneel foofu parce que daaneel. yéen a ngi deux ah. sportifs ci plateau yi parce que ñu ñu bëri xam la plupart les gens te voient par exemple. Ah. bu lay gis dañu lay gis ngay def gym. Mm-hmm. casquette journaliste dañu koy fàtte. Mm-hmm. parce que les gens m'interviennent pas des fois dans la rue pour wax ma. Mm-hmm. yow da ngay def gym rek wala dégg nga man ma je suis journaliste sportive. avant may nekk di def gym. gym dama ko def c'est un plus bi ma xam ne am naa ko. c'est pour au moins pousser les gens qui sont à la maison le matin de faire au moins. moins 5 léegi dama leen di gën a invité yéen tamit année bi di ñëw gym ngeen koy kar mais damay bëgg ngeen di bouger ak man kon jeex naa ma noppi waaw ah. foo génne. <laughs> waaw tey Mouhamed lii euh, am na sama benn grand frère. Ah. day jóge uniquement Kaaw Paris. Oh. ñoo uniquement indi ma yëre rek solu pour ma solu ci tey ji rek mu muufaat. bilaay. parce que yëre indi ma yëre bi moo ko indi foofu. pour ma ah. ñibbiwaat mu tudd Boy Tukku. Kals Chéri Binta. yow chéri kan nga. man chéri première dame. parce que suñu pare nañ dem nañ dem seetaan lii te ñëwaat. parce que suñu maam. ñu dem seetaan loolu capsule bi dellusi. mais fàttali naa kan jàll sama 10 000. salaamaaleykum c'est Alseni Ndiaye capitaine de l'équipe nationale du beach soccer di souhaiter meilleurs vœux à la 2STV di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm dellu leen sutura ba télé sa kanam a bonne et heureuse année 2019 de joie de bonheur et de réussite. ñu ngi ñaan atum jàmm at bi ñuy waaj di génn ci kattanu yàlla bu naree ñaaw yàlla mel ni yi fi jaar yëpp suñu borom rafetal ko di wax rek ni jàmm rek. la ñuy ñaan fii ci réew mi. bonne heureuse année 2019 di ñaan at bi doon atum jaamu atum naataange atum ubbeeku pour sénégalais yëpp. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum adduna man la Mouhamed Niang Serigne Saliou maa ngi leen di souhaiter bonne et heureuse année 2STV di leen ñaanal jàmm sutura teraanga ju bari jaa ngeen jëf. de. mi ngook ni ma ko waxee sànq nag ñu ngi ci euh, file ci suñu ay studio ak Kane Diallo borom Welma dañuy dem euh, ak moom rek ànd ak moom ci quelques notes de musique dellusiwaat léegi ci plateau bi Abdou Karim Mbacké gént naa ma tàlla samay loxo mu may ñaanal gént naa mu may aar ki ma gis gént gi lenn lool setee ba set mooy Sëñ Abdou Karim Mbacké moy na doomi Diallo ñu ngi lay nuyu. ah ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax a baax. ñu bàyyi la nga nuyoon nuyonteeg ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci kanam tuuti ñu dellusiwaat ak yow. ayca tey maak yéen ba fin incha allah incha allah ñu ngi lay bége bu baax a baax a baax kan Diallo ñu koy waxee ci ñun la bokk. donc lu ñu sóob suñu loxo lu ne rek faw ñu dugal ko ci ngir nag euh, mu doon benn rek kër gi benn la ñu dalal keneen ci plateau bi wala ñeneen Mouhamed Lamine Ka ak ki nga xamante ne moom moo di euh, Ndeye Anta Dramé mais man du ma ko wax Ndeye Anta madame Keita laa koy wax ndax mu may may junni <laughs> du doon. <laughs> nuyu naa la bu baax. maa di am mbégte tey teewaat fii ah, jàkkaarloog mbokku téléspectateurs yi c' est euh, plaisir bu rëy la ah, ak 30 ans bi di leen souhaiter une belle fête euh, de fin d' mm-hmm. di leen ñaanal yàlla at bi ñuy dugg si mu nekk atum ah, mbégte. Mm-hmm. atum naataange ak euh, longue vie à tout le monde. Mm-hmm. di nuy ñu ma bokkal plateau bi di leen souhaiter ñoom tamit bon fête. tey fête bi fii lay tàmbalee. tey fête bi fii lay tàmbalee jëm minuit. jëm minuit ay suba ay ku zappé <laughs> ay ku zappé eh, dootu leen ko defati moom Lamine Ka. Seynabou <laughs> Ndiaye. dara. Seynabou maa ngi lay nuyu di la siyaar. Mhm. di nuyu euh, Ziggy. Mhm. Euh, Kumba yéen ñaar da ngeen faawante yow Ziggy. Ah, da ngeen faawante. <laughs> on a mis euh, des comment dire encore des convergences. des convergences d'idées. d'idées et de et de vues. et de vues.

mais il reste que. ay heures waaw et dégg ngeen ma ay heures. dugg ci deux mille dix neuf <laughs> euh, lu ñaaw wala lépp loo xam ne yàlla nañu ko bàyyi 2018. amiin moom kay ci kanam foog ngeen wax ma lu dul topp xale yi dégg naa ñu wax li dul topp na bëri de. ci kanam foog ñu ñëw ci lu ñu dul topp mais Tambidou dafa indi tey yoole yoole. Tambidou tey xale yi la bëgg yoole te. moom da leen di yeetal bañ tëddi ndax jaxase leen ak seen parents ba pare yooleeku. bon bu 2019 naree ñaaw yàlla na dàq. amiin waaw amiin amiin euh, merci. jërëjëf donc euh, Seynabou comme ni nga ko waxee sànq rek euh, tey xam na peut-être. mbokki téléspectateurs yi damay fàttali nekk ne au delà de tamit sport local que tamit am na sport international tamit boo xamante ne mën nañ ko suivre fii ci euh, ce matin c'est à nous tous les vendredis bu weesoo loolu comme ni nga ko waxee sànq tey dañuy waxtaanee ndaw ñi mm-hmm. parce que ku wax que 31 décembre fête la donc fête boo xamante ne aussi ndaw ñi dañ si profiter waaye nag du yoole dañ ciy profiter di def yoole comme yow du yoole comme yow ni nga xamante ne nii moom nga ko waxee <laughs> mais balaa maa ñëw ci ci ci ci yoole boobu damay wax rek ay yenn affaire yoo xamante ne peut-être xew na ci 2018 mm-hmm. bi euh, xaw na ma euh, marqué tuuti. Mm-hmm. muy euh, bi ñu defee benn liste WhatsApp boobu tuddee ko le filles faciles. Mm-hmm. gis nañ li ci xew ay étudiants ñoom ñoo ko def. après teg nañ leen loxo la moo tax ñu def ko on ne sait pas. mais après gis nañ aussi li nekk ci gannaaw ñu leen ñu ñuy woo ñenn ñi di leen chantage. Mhm. donc façon boobu tamit na nekk loo xamante ne. ñaaw na ñaaw na te nañ ko bàyyi 2018. <laughs> Euh, bu loolu weesoo aussi euh, gis nañ tamit ci atum 2018 bi. Mhm. xale yu ndaw yi tout tànk yi ay moins de 6 ans. ñu gis parfois seen i parents wala seen waa kër ñu leen def ay vidéo ñuy def ñuy wax ay mhm. affaire mhm. yooyu tamit buñ ko buñ ko mënee bàyyi quand même parce que euh, yaakaar naa xale bi euh, cëram wala euh, place am du foofu ñu di ko jël di ko partager ñëpp di ko gis loolu loolu baaxul buñ ko mënee bàyyi aussi ñu bàyyi ko donc bu weesoo loolu aussi comme ni nga ko waxee rek ndaw ñi ak élection 2019 la ñu dëkk man ko wax 2019 waa élection présidentielle 2019 mhm. ndaw ñi aussi am si war ci am taxawaay si taxawaay boobu laay gën a insister. Mhm. ku si nekk na nga xool li nga xamante ne euh, moom nga man nga def ko yaakaar naa ne tey bu ñu waxee élection. Mhm. lu ci bari ndaw yi ñoo koy def parce que ndaw yi ñoo am kan ñoo am kantan bi. Mhm. pour def ko ñooy meeting yi ñoo ciy dem. lu ñu war a dox ñoo koy dox ñoom la ñuy mobiliser dugal leen ñoom la ñuy mobiliser mais mobilisation bi ak dox bi ñuy dox yépp bu bu perte di am ñoom ñooy perte donc yaakaar naa ne foofu aussi war nañu xam bu baax a baax. fa la ñu teg seen tànk ñu bañ leen di dugal ci loo xamante ne ëllëg da leen di dundal da leen da leen di jural ay ay yoo xamante ne peut duñ ko duñu xam fa lañ koy nettalee. àndil mhm. seen ay wéjur ay problèmes yu dul jeex. donc yooyu yëpp mu nekk mbir yoo xamante ne war nañ ci euh, bàyyi xel bu bu baax a baax bu loolee bu loolu weesoo yëpp nag tey mu nekk ci mu tey mu nekk 31 décembre comme ni nga ko waxee sànq 31 décembre nag bésu mbett la bésu fête la <laughs> MLK xam na 31 décembre parce que dund na ko du benn du ñaar. Mhm. te ba léegi mu ngi koy dund. te ba léegi mu ngi koy dund donc. waaw 31 ah, décembre nekk. Euh, MLK lan donc euh, mu nekk waaw. mu nekk bés boo xamante ne euh, bésu fête la. Mhm. mais fête bi ñi si gën a fës mooy ndaw ñi. donc puisque bésu fête nag ndaw ñi ñoo si gën a profité. man j'ai un problème. damay ko prendre jamais au sérieux. non buy <laughs> wax man dafa am euh, euh, <laughs> mhm. euh, c'est que problème dafa am. parce que da que c'est-à-dire que ay kii lañ xam nga ñun ay ndaw lañ. <laughs> Uh-huh. te tey jamono bi toll na foo xamante ni war nañu ñun ñu xoolaat def benn recul xoolaat ñu taxawaay xoolaat suñuy jëf. yaa ngi comprendre bu baax donc muy man. muy keneen ñoo ci bokk yem mais li ma koy commencé ci man mm-hmm. parce que wolof Njaay nee na béyool sa wayu tànk mm-hmm. donc li may wax dama siy commencé sama bopp ma gisi sama bopp bu baax mu ñor ma lool moo tax tey mm-hmm. euh, ma toog euh, bëgg ko waxtaan ak nit ñi li ma leen bëgg wax ndaw ñi mooy tey bésu feet la ay ay waxtu rek la waxtu yooyu bu mu ñu jaral ñu def naka sudul ah, noonu bu mu ñu jaral noonu tey am na ñoo xamante ne seen loxo jotul seen gannaaw mm-hmm. bu mu leen jalal mu ñuy dugg si ay problème yoo xamante ne ay problème xaalis parce que bëgg nañoo fêter 31 décembre bi mm-hmm. am na koo xam ne dafa way ne euh, ku xeebul sa noos kenn dàqu noos mm-hmm. loolu dafa am solo seen ko bàyyi xel ku ci nekk li nga am <laughs> ku ci nekk li nga am yaakaar naa ne boo xoolee tamit euh, ci li nga xamante ne moom nga moom nga mën a def ci li nga am di nga ci euh, fêter 31 bu neex parce que 31 yaakaar naa fête jarul euh, c'est pas une question d'argent de mhm. question ne da nga am il faut nga am xaalis bu bari pour mën ko fête mhm. ci li la yàlla may astut mën nga ko ci fête ak sa njaboot gépp mais aussi ñaax aussi parents yi euh, parce que ñu ci bari dinañ bàyyi seen ay doom génne kenn terewul seen euh, bàyyi sa doom génne waaye say doom mu génne na xam fu mu jëm mhm. Euh, ka mu fay demal. ak ku muy àndal ak ku muy àndal mhm. aussi heure bi muy ñëw yëpp ñu xool ko. loolu waxuñu ko pour comme seen bu ni mu ko pour yoolee mais juste pour soññ. sensibiliser sensibiliser. parce que xam nga tey bu la bu la 31 jaralee nga soit nga jël alalu jàmbur wala nga def na ko su dul noonu ay bés day ñëw reccu mhm. reccu day am mais am na benn phénomène aussi bu ma bëggoon ñu mhm. bàyyi ci xel muy loué oto yi ci xale yi. loolu dafa bari. loolu moom tàmbali war nga si wax. surtout ci f moom la ëppee mhm. am na ñoo xamante seen oto papa la ñuy jël mhm. wala seen oto yaay wala seen oto mag am na ñoo xamante ne nag da leen di jaral dañuy jël xaalis bu bari mhm. fa lañ koy jëlee ça pose problème question la bu ñu demee bu ñu paree dem ci ñi nga xamante ne peut ñooy looyu oto yi man tamit yaakaar naa ci loolu ñi nga xamante ne ñoo yor euh, parc automobile yi ñooy looyu oto yi ñoom tamit yaakaar naa am nañ ci part de responsabilité. Mhm. parce que du question de tamit ndaw dafa ñëw andi la benn cent mille la jox ma benn Range Rover mhm. nga jox ko benn Range Rover yow xamoo fël la jëm. xamoo kan lay àndal xamoo est-ce que sax am na am na euh, kii nu mu tudd sax permis de conduire nga jox ko sa oto mu dem. Euh, bu mu fàtteekul ay at yu ñu weesu. accident am na accident bu xamante ne mhm. amoon na fii ci ci ci avenue Malick Sy. te ay ay ay ndaw rek la. ñu jóge woon ci benn fête bu amoon cathédrale. ñu def accident. xam nga loolu tamit ñoo ñu ngi noonu sonal seen waajur. ñun ñenn ñi ñàkk seen bakkan. Mhm. loolu lépp yaakaar naa tey si bitu feet feet bi nii wax nañ ci euh, bàyyi xel. bu mhm. baax a baax a baax comme ni ma koy waxee rek. Mhm. bés bi feet la. ñu def ko ci ci ci ni nga xamante ne moom lañ ko moom lañ tàmbali ko def sa moroom jigéen ñi. surtout surtout jigéen dama fee waaj gis nga. taxaw fa. xam nga jigéen. dafa nekk koo xamante ne dañ naan ñooy nekk socle société. tey société bu baaxee parce que jigéen moo tax. tey ñi ngay gis fii ñu leen di tudd ñëpp ñu am tur wala ñu am daraja parce que dañoo am yaay joo xamante ne daf leen a taxaw. tey may wax ñi nga xamante ne ëllëg dañuy nekk ay yaay tey sa doom euh, Seynabou bu génnee ci mbedd mi mën fa doxee nu ko neex. parce que peut-être yaayam moo li moo moo moo jëf-jëf joo xamante ne tey moo waral. bu bu bu génnee si mbedd mi. te loolu léegi lay tàmbali dina mën a dox nu ko neexee parce que yaayam moo amoon benn conduite bu baax. Mhm. te loolu ci nga nekk ndaw. Mhm. ci lay tàmbali. Euh, seen bu kenn ñaanul yàlla tey euh, nga génn ci nekk ndaw génn ci mbedd mi. nga bëgg a jaay dara ñu ne dama toog parce que sa yaay nangam ak nangam. loolu la ñuy wax sa yaay bu mu la wutal xas fu la neex jaar. fu mu la neex jaar. Ah. xam nga te loolu. Mhm. voilà mi ngi noonu. aussi war nañ ci bàyyi xel feet la. mën nañ ko féete mhm. jàmm ak salaam mhm. après bu weesoo ñu nekk ci leneen mhm. parce que tamit 31 décembre la benn ay ay heure rek la fête bi ay heure la mais est que tamit tambe du euh, xam nga bu njëkkoon ñun li ñu daan def ñun 31 décembre mooy sa papaay gaare oto mbaa sa nijaay mbaa sa maam ngeen dugg si dem place de l'indépendance taal pétard euh, cëppi cëppi dem ñibbi léegi xale yi appartement yi sax dañ koy loué surtout instant bi nag xale yi léegi dañuy loué appartement instant bi ñu toll nii phénomène boobu ci le gën a am doole. incha oh, oh. am na ñoo xamante ne moom daas fanaanal lañ def. c'est-à-dire dañu dañoo préparé rek yow. <laughs> am na ñoo xamante ne dañoo préparé seen lépp toog. 31 budget lañ ko budget lañ ko wutal. ñëw toog. budget lañ ko wutal. Mhm. dem louer seen appartement defar seen lépp instant la la ñuy xaar. guddi jot guddi jot am na ñoo xamante ne sax ñoom tàmbali nañ instant bi nii. tàmbali nañ ko yàgg na depuis 24 ah am na ko. non c'est vrai defar nañ ñu war a defar lépp. Mhm. la la ñuy xaar guddi la ñuy xaar. Mm. ànd ak seen ay copains ànd ak seen ay copines ñenn ñi jël seen oto pap ñenn ñi jël seen oto yaay ñenn dem louer ay oto dugg ci biir dëkk bi. loolu lépp nag mu nekk yoo xamante ne aussi bu ñu ci mënee bàyyi xel man damay insister surtout si jigéen mm. parce que xam nga góor sax Ah, gaaw man waaw moo ëpp mucc lu ko yàq yombul lu ko yàq yombul ah, ah. mais jigéen lu ko yàq lu ko yàq dafa dafa dafa gaaw seen ci bu loolu weesoo yëpp maa ngi wax jeunes yi jeunes yëpp ma leen di wax ne bonne fête de fin d'année euh, may profité tamit si occasion bi di euh, di gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne à chaque fois su ma defee participation si plateau bi dañ may message de critique de suggestion mais aussi de félicitation di leen gërëm yéen ñi xamante ne yéen laa par yéen laa euh, nga ma wax loo def gars ba ñu yëpp <laughs> ñoom laa bokk cercle plateau bi aussi à chaque fois intégration bi yëpp ñoo ma ko gën a yombal rawatina aussi euh, tata Mané mi nga xam ne tey moo tax ba moo commencé euh, def ce matin c'est di wax aussi joyeux anniversaire à Pape Ousmane Cissé dama ko jugoon def naa ko. ah ok merci beaucoup. jërëjëf léegi comme euh, wax nga pare xale yi ñu lay xaar ci biti tey boo génnee tey dinañ la suur ba nga tey <laughs> ayca. y' a pas de souci. kii. <laughs> j'espère que li mu wax yëpp j'espère que li parce que tey max yéen la ba guddi. bu ah, leen xaate lool ah, jërëjëf. Ah, ayca asu nag nee na ngeen ci agression yi ndey asu nee na nga wax ci agression yi. <laughs> ndey Anta Anta daal asu nee a dañu eh. wax ci agression yi parce qu'elle a été victime. waaw si effectivement parce que nekk na tamit phénomène boo xamante ni tiital na gars yi bu baax a baax a baax surtout sànq li mu doon wax ci euh, affaire bu fête yi si aussi euh, lu ñu war a mën a bàyyi xel agression yi ci portable bi ngay euh, wala sa saag ak yooyu yëpp génn guddi gi ku ci nekk nga xam endroit bi ngay fréquenté et tout te sàcc itam nañ ñu dimbale xëy na tamit at bu bees bi dinañ ci soppeeku ah. ñuy jéem a ah, leneen ah parce que <laughs> wax dëgg fa neex yàlla yor sa portable bu baax baa nga yor baax ñu daal la ko yóbbul noonu metti na daal waaye nag day waaye nag tey nag moom mhm. dama andi woon benn sujet boo xamante ni dinañu soxal ñun ñu toog ci plateau bi yëpp góor comme jigéen mu nekk mbir moo xamante ni je peux dire marqué na année 2018 bi def na tole bu rëy nit ñi waxtaan nañ ci et tout jusqu'à présent on n'arrive pas à comprendre andi na ay polémique yu rëy muy dellu ci wàllu jalousie alors jalousie nag su ma ko ku ne dina taxaw di wax ci ban fànn fànn laa koy waxee mais surtout ci couple yi. Mhm. parce que bu ñu rappelé woo bu baax ci euh, mois yee ñu wees rek euh, déggoon nañ fi couple yi nga xamante ne jote nañ ci yu mel noonu ba am ñoo xamante ne sax euh, mujj nañ cee ñàkk seen bakkan. Mhm. mu nekk loo xamante ne nag dafa marqué woon esprit yi ci naka la nit war mën a am tolluwaay bu toll noonu ba mën a def jëf ju toll noonu ci borom këram. Mhm. wala ci soxnaam itam relation yi nga xamante ni am na ci kuyub couches yi tey jii benn ku ba gisee rek ñëw <laughs> fexe ba dugg sa ménage <laughs> yow première femme euh, nga am ci loo xamante ne doo ko mën a digérer car euh, kumba ci mbedd mi am loo jëflanteeg moom mu nekk mhm. ay euh, situation yoo xamante ne jot nañ ko gis si 2018 bi tam marqué wul na esprit bu baax alors thème bi nag bañ ko defee affaire yi am ku ci nekk buggoon nañ ñu def ci taxaw seetlu looloo tax tay ma ne ci 30 ans bi dina ci baax ñu toog waxtaan ci suñu biir waxtaan lay doon nag du nekk loo xamante ni man rek maa ciy kiim mais waxtaan lay doon ndax yow tey euh, nabu euh, bu la yàlla xam <laughs> <laughs> nga ci dara ndax ku fi nekk fii nii euh, bu bu boo nekkul itam ci relation am na loo xamante ni peut-être jot nga ko dund fiiraange boobu nag ma je pas lan moo koy am indi carrément xëy na yéen ñi fi toog ku ci dekk tey di nga am loo wax parce que euh, Tambidou sànq mi ngi ko doon wax tey nag fet la damay ragal sa borom kër sañse ba mu baax génn ne la damay dem plateau sax nga yaaxaan dafay jàdd ci ndaw si donc itam baax na ñu def benn euh, je dirais pas conseil mais ñu fàttalante ci suñu biir euh, ci yow. <laughs> ah léegi nag la c' est à dire juste xam nga yooyu les phénomènes ñun jigéen ñi ñoo koy. gën a ah, faral ci 2018 bi moom jigéen ñi ñoo ci a. non non jigéen ñi ñoo koy naam sax am na ay góor yoo nga xamante ne parce que ñu ngi fàttalu ki nga xam ne xaw ma ban dëkk la déjà mhm. euh, euh, soxnaam wannu lor dem ba pratiquement nekk ci yenn kii yi mu faat ko donc loolu itam euh, bëri na ci góor yi koy def mais ci 2018 je crois que jigéen ñi nga xam ne moom ñoo nekk ñoom mhm. ñoo def mbir mi ci seen borom kër moo ci ëpp quand effectivement moom moo ci ëpp moo tax débat bi ma tàmbalee ko ak ñun ñi jigéen ñi parce que je sais pas exactement lan mooy waral boobu lay jëf lan mooy waral di di toog am benn jalousie boo xamante ne ko mën a bi muy jëf yenn jëf yi nga xamante ne dafay jéggi daal. nañ ci ñëwaat léegi ci kanam nañ dem ànd ak waa régie dellusiwaat niñ koy defee ci suba ak léegi. ñii wàcc ñee yéeg image euh, yi euh, ci année 2018 ku ci nekk am nga ci lu la metti parce que le fait que nga dégg ne ñaari nit sëy nañ ba yenn am wala nga dégg ne ne sa borom kër takkal na la wujju ba yenn am dafay nekk loo xam dafay choqué nit ñi lan mooy waxal euh, di di toll ci boobu extrémité alors sànq loolu laa doon wax ne mhm. genre discussion lay doon ku ci nekk sànni ci sa xalaat et ñu mën a wax lan mooy waxal nit ki di dem ba toll ci yu mel noonu bay euh, yëg benn benn benn benn fiir bi sànq depuis sànq ba léegi yaa mooy may xool yow Kumba. <laughs> na nekk ma nekk ma ci yooyu pour dire vrai. Mhm. Euh, donc euh, li nga wax c'est c'est très important parce que 2018 bi violence yi jëm ci jigéen ñi bëri na lool. loolu lépp li ko waral di jalousie. lu ñu mën ci wax rek mooy jalousie nañ ko nangu ñun ñëpp nit moo mel noonu jalousie dafa am muy góor comme muy jigéen mm-hmm. mais yàlla dafa def loo xamante ne ni euh, góor rek la ko may mm-hmm. mooy euh, dafa am droit bu am ñeenti jabar kenn mënu ci dara mm-hmm. euh, comme benn imam lu mu ko waxee rek jigéen bu nekk vingt cinq pour cent nga am ci sa boroom kër je pense que loolu buñ ko xoolee cent pour cent lu ci des dañ koy mottali mottali bi nag mooy jigéen jigéen bi parce que kenn kenn du ne sañ naa bàyyi sama jëkkër bàyyi ko muy xooli beneen jigéen wala ñeme naa wujje loolu ku ko wax xóot rek ko ciy dugal xam nga ñun dañoo woo bët naan ay euh, ragalu ma wujjee jigéen bu ñëw ma mën ko gérer loolu ay wax rek la mais yaakaar naa ne ku ci sañoon euh, sa borom kër yow rek yow yow xam nga ci daal yow rek yaa koy moomal sa bopp <laughs> mais lu yàlla loo xamante ne nii daf ñu uh-huh. ko daf ñu ko baaxee la mooy jigéen di muñ ko ja euh, jëkkëram di dem di xooli ñeneen di ko indi ci kër gi loolu kenn mënu ci dara mais yaakaar may ma daaneel nag maa siblé bàyyi ma daaneel <laughs> mais yaakaar naa ne au delà de ku uh-huh. ci nekk Euh, yow dañ la muur sa kër. Mhm. yóbbu la pour nga dem fekk beneen góor. Mhm. Euh, c'est vrai que neexul. tey nga toog sa foyer beneen jigéen ñëw fekk la fa di la perturber uh-huh. parce que bu fekkoon rek euh, yow leer na la ne wujj biy ñëw bi di la fekk si sa kër euh, uh-huh. dina bokk ak yow gis-gis dina bokk ak yow xalaat bu ñëwee jàppale la euh, def la magam gunge ngeen defar seen borom kër yaakaar naa ne loolu problème du am Kumba su ma ko déggee mi ngi wax genre ci ki lay ñëw fekk si tiitaange bi ngay am ci nu mu war a mën a toogaalee ci kër gi waaye au fait le mooy yow nan nga war a mën a amee benn fiir goo xam dina toll ci extrême nga lakk sa jëkkër sotti ko essence parce que tu parce que takkal na la wujju. waaw loolu je je je dis que man ci ci base bi la. Uh-huh. parce que tey jii bu fekkee danga ñëw nga am benn attitude yi jigéen ñëw. Euh, indi benn attitude boo xamante ne nii c'est agressif day dem ba benn moment ku jigéen ki dootu la supporter loolu mooy waral nit nit ki du am ci yow kersa moo tax dañuy faral di wax nit ki balaa ngeen a sekk dara na kersa am seen diggante ba pare. Uh-huh. rusaange ak yërmaane. Uh-huh. loolu yaakaar naa ne bu amee ci diggante ba pare rek. <laughs> dama koy xaaj at bi nag ak li nga xamante ne moom la ñuy gis parce que nemmeeku woon nañu fi ci atum 2017 su ma juumul li gënoon a bëri mooy faat nit. atum 2018 bi li ci gën a bëri bokk na ci violence yi nga xam ne mooy xewee ci biir kër yi waaye itam sàccum xale yeeg yooyu ndey nag tey indi na lu jëm ci violence yi nga xamante ne moom mooy am ci biir kër yi euh, MLK. Euh, merci war a jàpp d'abord mooy que fiiraange dafay yàgg Euh, fiiraange jigéen euh, mën nañ ci rappale benn rek ci histoire muy euh, Saara bi nga xam ne moo nekkoon soxnaa yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam bi yonent yàlla Ibrahim labatee beneen soxna muy Hajara nekkoon servante am fiiraange daf ko jàpp ba mënu ko woon parce que en fait Ibrahim dafa dund lu yàgg dem sax ba màgget. Mm-hmm. moo Saara amuñu doom nee nañu Saara demoon na ba am lu ëpp lu juróom juróom fukki at amuñu doom mhm. euh, booba nag dafa am loi bu permettre nit ki mu takk euh, beneen beneen soxna mhm. ay mhm. mu takkee xaajal euh, loolu nekk fiiraange ci moom ba munu koon supporter ba loolu moo waraloon yonent yàlla Ibrahima jëloon Saara xaajal pardon yóbbu ko Màkka ba foofu la Ismaël juddoo ak histoire beeg zam-zam ak yu ni mel ak mhm. yooyu ci juddu mhm. aussi kon pour dire tout simplement que lu yàgg la ci àdduna leneen di fiiraange ci góor mën nañ ci rappeler muy diggante Haabil ak Qaabil di ñaari doomu euh, Adam alayhi salaam mi nga xam ne moom mooy Abul Bachar mhm. mi nga xam ne ñun ñëpp ci moom la ñuy génnee crime passionnel foofu la njëkk a am ci ñaar ñoo xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que bu njëkk euh, li ñuy woowee tey inceste amul woon ñaar ñu bokk ndey ak baay mën nañu sëy parce que fallait que ñu multiplier la race humaine donc foofu le crime passionnel di kon loolu lu lu yàgg yàggale si àdduna mais li ñu mën a wax si loolu mooy euh, yàlla bi mu ñu bindee dañu ñëw si àdduna rek lu ñuy woowee état de nature état de nature boobu nag ñu ñoo koy domte fexe ba euh, culturation maanaam yar ci wàllu diine ak ci aada ak ci morale ñu fexe ba soppi lu bëree bëri bëri mm-hmm. parce que fiiraange moom ku nekk ci ñun fiir nga mm. violence mi ngi sommee ku nekk ci ñun euh, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne c'est de l'animalité très bien nit ki nag mooy fexe ba yar boppam ba loolu bu naree yeewu sax Euh, mu fexe ba garder waat ko effectivement euh, ku ci nekk am nga ci loo xamante ne euh, moom nga teg comme ni nga xamante ne moom nga gisee situation bi boo gisee au fait nabu ñu taxawaat ci andiwaat ko c'est parce que dafa dafa marqué esprit te bu ñu sañoon yooyu la jëf du am parce que au delà ci fee yi ni mu demee dafa nekk ay événements yu triste parce que nga lakk sa borom kër ak doom yi leen yàlla boole ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne mi ngi làqu ci ginnaaw moo tax tey ñu bëggoon na euh, ci tàggatoo wu année wu 30 euh, ans bi ni 2018 ñu bëggoon a taxaw ci loolu pour ñaan yàlla suñu borom yooyu la jëf ñu bañ koo gis si yeneen i année yi nga xamante ne moom la ñuy ñëw parce que nekk na loo xamante ni itam euh, c'était trop triste di ñaanal nit ñi nga xamante ne am nañ benn jabar ah mu leen yàlla uh, dénkee beneen ñu xam nuñ ko defee rek ak tamit ñu amagul jëkkër ñu dem seeti célibataire yi ñu ah! ànd célibataire ak célibataire ñuy ànd loolu daal xam naa ne nekk na loo xamante ne <laughs> dama leen koy baaxee rek ci at bu bees bi di ñaanal ñaanal ah, léegi yow ah. dafa baax succès parce que en fait parce que bu ku ne ko ni ñuy wax ci bu bi rek MLK boobu baaxul wax loolu loolu. non c'est-à-dire que boo amul soxna am maîtresse. léegi MLK boobu baaxul boobu baaxul. na nañuy affaire yi rek nañu nañuy négocier affaire yi <laughs> parce que franchement c'est très important léegi. <laughs> xam naa ay cadre célibataire la yii rek mais amul benn problème tendance yooyu yëpp nañu ko eh, gérer. di ñaanal ci société bi lan moo ñu dul topp ci 2019 pour yow. Euh, lakk yeeg ak takk yu betteel ah? waaw yooyu yooyu daal bu ñu topp daal takk yu betteel yooyu noonu ñaareel li ñuy takk noonu te doo ko yëg ah yooyu yëpp daal yàlla bu ñu topp daal ci 2019 di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam franchement la woon partager plateau bi bien bi ma ci commencé yàggul mais mbégte laay am saa su dajewaat ak yéen fii ci plateau bi waxtaan ambiance bi neex na je te remercie beaucoup euh, ci euh, ni nga may dalal yi ñëpp ñi ma bokkal rédaction wu 2STV yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di ko ñaanal sama famille mon mari adoré ak ñëpp <laughs> ak monsieur Keita ayca kan nee naa leen euh, moom la ñu fas yéene àndal fii ba 10h incha allah euh, dañu koy bàyyi rek mu mayaat ñu benn affaire bu ndaw rek ndax ci kanam am na lu ñu leen euh, préparé aussi ci Jean Michel les mercredis de Jean Michel sama jëkkër jooju nga xamante ne 200 la dugalagum ci sëy bi dinañ ci ñëw ci kanam ñu ànd ak kan Diallo ci beneen son dellusiwaat. malisajo ye malisajo bafula be eh, malisajo malisajo ye malisajo bafula sukaaɓe mawɓe ngare ñeken koto e men fo yo wawolante sukaaɓe mawɓe ki adde kundam celal balel soole ki suki wati bubri nafoore mem yo ngawlen ladde sukaaɓe maɓe ngare ñexe kotoye men fo yo waawlen ki you. mu ngoog kan Jalla uh, ne weli ne weli wala welaani. macha allah non ne weli kay ne weli kay ne weli sànni la. c'est universel quoi franchement. dégg nga lii non c'est pas universel. yow mii c'est pulaar yow lépp. bu mu doon woy. Nafi viens prendre ton mari par là. kaay jëstu jëstu. Nafi depuis quand lui il était marié en fait. voilà parce que c'était pas moi. Ah. non même si ça n'a aucun lien avec le bolgomisme. Eh, eh, mais Mendy Mendy dugaluñu la ci nag honnêtement lii c'est pulaar. mais laissez-le quand même développer. mais c'est géopolitique ah non la musique c'est géopolitique. c'est international. et quand c'est international c'est géopolitique. Mhm. et quand c'est géo c'est politique. mais <laughs> Kane Diallo félicitations. Ah laal nga ma quoi parce que mise bi ngay def. de ah. delà même d'être pulaar ak pulaar. Mhm. c'est laal la ñëpp man mii jaagu toog sentir naa ko. ah bon dugg na rarement mu fecc quoi mais. yow ci nga dëkk. ah non dire aux téléspectateurs. <laughs> dix ans chaque jour fenn comme chaque jour benn yow nga ne weli weli. <laughs> kay. weli sande. non maa ngi koy may sama yaay aussi ah. Mm-hmm. parce que nee na yow doo jamais ma ne ko waa dinaa la nuyu meer. mais maa ngi koy may sama yaay bu baax a baax di koy ñaanal waaw allah. waa éducation comme d'habitude waaw. ah xam nga damaa jaar Colobane MLK moom woon benn ruqam quoi <laughs> bi may xëy mu ne ma soo jàddee noonu Colobane. mais chemise bi dama kaa àbb tamit xam nga man moom. da ngeen yi moom <laughs> li ma ko waxee sànq dinañu ñëw ci kanam ak euh, Kumba mais kan la ñuy commencé seen waa groupe gérer leen ko. non Kumba honneur aux dames xam nga rek euh, ak fin d'année bu ñu nekk nii. dañ koy bàyyi mu mu mu daal di def dernier prise de parole pour 2018. Mm. Mm-hmm. xam nga moom nag dafa xaw a bëgg micro. <laughs> waaw dañ koy ah, jagleel affaire yi rek. waaw léegi tey eh. dama koy jagleel honneur au monsieur. ah te laisse. parce que da ngeen di taalaate quoi. ah, ah oui bon l'honneur ne se refuse pas damay daal di nuyoo parce que xam naa ne sànq j'ai un peu brûlé les étapes je l'avais pas fait. mais di nuyu sama jabar Nafi nga xam ne da ngeen ko gis tout à l'heure sur le plateau. di hmm? nuyu euh, sama fans numéro un. MLK mënoo ko fan. Omar de fas na kanam. mais tey dama bëgg nuyu spécialement Badiane Mané parce que si suba xawoon na cool dugg nañ sa eruq duggaat sa eruq pour am benn élément donc Badiane Mané maa ngi lay nuyu bu baax. je crois que je prends jamais le temps de remercier ou de saluer l'équipe technique mais war nañ xam ne lépp lu fi jag ñoom la. donc ñu ngi leen di nuyu voilà les hommes de l'ombre ñu <laughs> bu baax baax ñoom chaque matin ñooy toog ci seen écran pour la 2STV seetaan seen émission matinale. nuyoo bi jeex na wala euh, bi jeex na kii la. moom a <laughs> bi jeex na mais xanaa rek euh, peut-être pour gagner du temps ñu dem seetaan élément bi nga xam ne colmaté nañ ko parce que je crois que ça fait maintenant un an et demi bi ñu intégré équipe matinale bi jël nañ fii jël fële pour rek wane tuuti li nga xam ne def nañ ko ci année 2018 balaa ñuy clôturer bu fekkee ne élément bi pare na ñu seetaan ko dellu si waat si plateau bi. Peut-être je vais commencer par te demander, euh, c'est quoi l'histoire qui lie réellement Marie-Jeanne Thomas au Sénégal euh, bah, c'est ma naissance. Je mm -hmm. suis née à, euh, à Tivaouane, mais j'ai été déclarée à Dakar. Mm -hmm. Et après, nous sommes, mes parents sont allés vivre à Tambacounda. Et nous avons fait Saint-Louis, euh, Thiès, euh, euh, Rufisque, ensuite Dakar, parce que Mes frères et sœurs aînés étaient au lycée Blaise Diagne. Mmh. Et quand ma sœur a eu son bac, elle voulait faire sciences politiques. À l'époque, on ne le faisait pas à Dakar. Donc, euh, nous sommes partis en France et mes parents m'ont emmené dans, dans, la, dans la, les valises. Mmh. Et depuis, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une petite coupure de quelques années. Mais à partir du moment où je suis devenue journaliste, en fait, je viens à Dakar 4 ou 5 fois par an. Alors, euh, j'ai le privilège de dire que je suis la première femme noire dans tout l'espace francophone à avoir lancé un magazine. Mmh. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que quand je signe un éditorial, je m'engage financièrement, je m'engage politiquement aussi. Je peux faire un éditorial en disant que Bush, euh, que Trump est un ham ham ham. Mmh. Je peux faire un éditorial aussi sur des problèmes sociaux qui touchent l'Afrique, mais également qui touchent le monde. Euh, je, on s'engage politiquement dans Brune. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on refuse les publicités activité pour le Khessal. Mmh. Bon, ça, ça nous coûte beaucoup parce que c'est une manne financière très importante. Il y a certaines publicités, certains annonceurs qu'on refuse parce qu'on estime que leur image, l'image qu'ils proposent des femmes noires n'est pas bon dañ koy di dagg foofu rek par manque de temps parce que xam nañu li ñu dese si temps te li ñu leen di li nga xam ne des na. Uh-huh. nekkoon Marie-Jeanne bi nga xam ne j'ai eu l'honneur et le plaisir de l'avoir sur le plateau pour un peu parler de la femme noire. Uh-huh. parce que li ñu seetlu woon avant mooy que ni au niveau de l'Occident quand on parlait de la femme africaine c'était tout le temps sur le côté euh, négatif. Uh-huh. mooy que ni femme au foyer l'heure donc elle a mis sur pied benn magazine boo xam dafay ñëw jël la femme sous un autre angle pour wane ses vraies valeurs les valeurs que l'Occident ne connaissait pas vraiment donc loolu nekkoon li xam ne indiloon nañ leen ko comme élément mais je crois que damay répondre rek si na bu par rapport ak li nga xam ne bëgg mu des si 2018 ak xam ne bëgg mu bëgg ñu si 2019 man dafa am xam ne ça me tient très à cœur mooy euh, le patriotisme béaba la euh, ñi nga xam ne dañuy jël mbedd bi jàppee ko poubelle. Mhm. loolu bokkul si ci patriotisme bëggoon naa c'est vrai que Dakar on parle de de de de poubelle on mhm. parle de d'ordure mais euh, on n'a pas forcément les moyens nga gis tous les cinquante mètres nga gis poubelle. Mhm. mais je crois que kuy liggéey si yor nga sa benn sacoche wala sa benn sac euh, doon na nekk geste bu nice loolu lekk au li nga sànni ko ci mbedd bi dugal ko sa sac bu ñibbi nga ranger ko nga sànni ko plutôt sa poubelle. fekk lépp aussi ñu koy xaar ci nguur gi ñuy def ñun lu ñu war d'abord balaa ñuy euh, ne nguur gi ma waroon def telle ou telle chose parce que mm-hmm. sénégalais dafa bëgg trop à chaque fois que ça va pas ñu ne non nguur gi la mm-hmm. donc yaakaar naa ne ñun ñëpp on est majeur même si on n'est pas majeur ñun ñëpp on est en tout cas am nañ xel bi nga xam ne parfois war nañu permettre ñuy xalaatee nen ñi di xoolee nen ni ba pare aussi di wax sénégalais yi nañu bàyyi oisiveté parce que quand on dit que le sénégalais il est oisif ou temps en fait di wax say affaire yoo xam ne la mère de les vices. exactement c'est la mère de tous les vices. Mhm. quand quand on dit que sénégalais dafa am parce que parfois nga dugg si yenn koñ nga xam ne tu pars le matin tu vois un groupe si si angle koñ bi nga ñibbi si le soir tu les retrouves exactement c'est un peu dommage nañu jéem a xool naka la ñuy changer jikko yi nañu jéem a xool naka la ñuy euh, jéem a régler sunu ay bobo personnel avant de régler li xew feneen mhm. wala toog di wax nit yaakaar naa ne temps bi ngay toog si wax si nit mun nga si toog réfléchir au moins si benn projet boo xam ne mun nga ko mettre en place mm-hmm. war nga si toog xool en fait def benn njàngat si sa bopp mm-hmm. xool en fait démb ni nga meloon tey naka nga koy améliorer parce que je crois que euh, lépp loo mun a apporter sa bopp mooy sooy tëdd sa lal balaa ngay nelaw nga ne lan laa def si journée bi lu baax lan laa def lu bon bu subaa lan laa war a bàyyi ak mm-hmm. su subaa lan laa war yokk en fait pour affaire gën a améliorer exactement on peut s'attendre à des trucs fous yaakaar naa ne folie boobu moom a jàppoon la semaine passée bu ma ñëw fii ak centimètre mais aussi di def benn rappel parce que tamit les gens euh, souvent dañuy topp mode bi ba xaw a dof en fait j'avoue que j'ai pris des risques et tout Fashion mais victime. on voit pire que ça uh ah -huh. Ah. et il faut que les gens sachent aussi que les habits c'est pas leur ramener en fait da ngay solo nu la neexee rek dem fu la neex. Mhm. chaque endroit a sa tenue <laughs> voilà <laughs> donc euh, parfois dañuy ne ñi nekk ay artistes yi ay dof lañ ba tax ne dañuy gis koo xam ne day ñëw jamal la benn grand bu ay all star en tout cas les gens en fait léegi bàyyeetuñu dara quoi faut aussi ñu respecter nit ñu tuuti. Mhm. xam lu ñuy sol. c'est important. voilà pas de centimètre. loolu pas de centimètre non centimètre bi si la parce que tamit tailleur yi foog nga rendre leen hommage mais tamit di wax rek ne créateur sénégalais aussi ñu ngi def liggéey bu am solo et que j'aimerais consommer local bi quand même gis nañu ni ñi nga xam ne grand boubou léegi da ngay gis ci euh, euh, événement yu gën a mag ñu defalal la grand boubou ñëw taxaw te di sol ay tenues yoo nga xamante ne c'est des tenues africaines mhm. mais mm, peu importe milieu bi ngay dem boo ko fa yóbboo dafay dafay rafet loolu itam gis nañu ñu indi ci yu rafet ci ci 2018 ba pare di rappeler rek ñi nga xam ne parfois dañuy voyager mhm. defal la veste defal la ceinture xam nga tamit da ngay ñëw di tekki mhm. ceinture affaire yooyu noonu soo defee sa benn tradu moderne takk sa kii si biir da lay gën en fait donc am na affaire yu nga xam ne créateurs sénégalais yi ñi si liggéey ñi ngi leen di promettre ay collection yu bi mhm. mais ma si profiter da nga consommation locale Made in ma bëgg en fait remercier le directeur général touche les artistes qui touche les designers pour en fait euh, wane li Sénégalais yi def parce que mois de février am nañ foire bi nga xam ne ça va se faire en Allemagne mhm. pour un peu montrer en fait ce qui se fait au Sénégal pour aussi gën a gëmloo Sénégalais yi ni en fait soxlaatuñu dem fenn pour jënd dara lépp am na fi. déet waay waaw appoo nag. géopolitique faaw nga ñamba c'est international. waaw non c'est juste que ci lu mu wax. lu ma gën mooy. Euh, remercier na la femme africaine. Mm. Euh, au-delà des femmes bureaucrates ñi xam ne ñu ngi liggéey. celle du monde rural ñu ngi am solo di liggéey. Mm-hmm. jamono ji dañuy cinq heures du matin dem ci tool yi. Mm-hmm. di arroser ngir tout simplement seen doom yi mun a dem jàng yi seen doom yi mun na subvenir à yeneen besoin mm-hmm. ñu mun a demati feneen donc c'est important ñu rendre hommage à ces femmes là. et c'est c'est moment aujourd'hui euh, comme. celle de nekk ci dans toute la Casamance ak yeneen au nord. Mhm. ñu ngi liggéey tey 31 la ñu leen di rendre hommage vraiment la femme africaine moom amatul leçon bi mu recevoir. Mhm. et puis il a de une nouvelle génération de jeunes. dafa jot tey l' Afrique ñu bëgg tax taxaw suba ça dépendra de la jeunesse. il mhm. faut une nouvelle conscience des jeunes qui ñu xam ni l' Afrique de demain dans le monde globalisé il faut ñu takk. suñu dëgg bi mu dëgër pour ñu affronter ñeneen parce que nous vivons dans un monde devenu un village planétaire e ku ne village planétaire ñu ngi ci égalité de chance wàññi nga cinq minutes ci sa temps de parole. <laughs> waaw dañ ko koy dagg après. man damay daal di tàggoo rek parce que yaakaar naa ne je vais céder la place aux gens yi nga xam ne ñi ngi xaar. Mhm. mais balaay loolu may remercier Badou euh, di ko di ko di parce que nee mi ngi ñuy seetaan. Mhm. mais souhaiter aussi joyeux anniversaire à mon grand frère Boudou maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp Adel nuyul ma ko bu baax ku baax la. Adel aussi ñu ngi koy nuyu sama message yaakaar naa donc moom aussi dinañ am euh, occasion dalal ko dara fayu ko xam naa dina bokk si ñi nga xam ne ñooy tijji plateau bi 2019 incha allah ku ma gisee bu ñu nee bu ñu ah jigi daal nee na mu ngi nuyu kooku xaw ma na ku mu man Adel laa nuyu <laughs> ci loo ne yow <coughs> yaa ngi ci jàmm côté maquillage li nga xam ne bëgguma mu topp ñu en 2019 mooy highlight bi xale yi jigéen ñi di jël di ko tay ci seen kanam ba bu ñu taxawee ci suuf suufu lampe yi di mel ni ay jeux de lumière wax si. c'est très important highlight. highlight mooy le truc euh, doré ou. li ñuy def fii def ci yenn extrémités yi seen kanam yi bu di mel ni ay jeux de lumière wax si. dinaa ci wax Nabou Ndiaye t'inquiète pas alors euh, euh, euh, di profité ci occasion bi comme j'ai pas eu le temps de le faire euh, ce matin di nuyu mbokku téléspectateurs yi di wax ni c'est un immense plaisir ak mbégte bu baax euh, tey toog fii ci plateau 31 décembre euh, di euh, bës bi nga xamante ne ni dafay marqué fin d'année bi am mbégte tey bokk ak plateau bi ñi nga xamante ne ni musuma bokk ak ñoom plateau ñu ci mel ni ay ñoom Ibou Mendy ay ñoom Babou c'est un un immense plaisir d'être là di waxtaan ak yéen pour wax leen li nga xamante ne ni moom la ñu jot Euh, def euh, ci année 2018 bi ci seen émission ce matin c'est à nous alors euh, li nga wax lu am solo la parce que bu ñu gisee rubrique beauté yi ñu jot def yëpp bëri na torop mais dañ ciy jël quelques point yoo xamante ne ni moo ñu ci gën a marqué te marqué na aussi mbokku téléspectateurs yi d'après les retour yu ñu am damay commencer rek ci li nga xamante ne ni moo di sept xale yi jigéen ñi ñu dalaloon fi nag ki nga xamante ne ni moo ngi Maya astuce beauté euh, jotoon nañ fi wax ci li nga xamante ne ni euh, moo di euh, beauté intérieure mais li nga xamante ne ni mooy set bi jigéen war am ci boppam waaye tamit ak li nga xamante ne ni jëmoon na ci wàllum dàmp mu nekk loo xamante ni c'est un peu traditionnel ñu indi woon ko tamit ci plateau bi comme ni ñu ko gisee léegi ak tito ta tikko tato ci image yi jotoon nañu wax tamit ci tatouage yi danger yi nga xamante ne ni jot na fi am mais suñu tënkee rek li nga xamante ni jot nañ ko def ci année 2018 bi nabu mën nañ ne 2018 euh, euh, comme lu ñuy faral di wax beauté à tout prix beauté à tout prix fësoon na ci lool parce que xale jigéen ñi euh, beauté dafa leen a soxal bu baax a baax te lu mu leen jaral bëri na luñ ci gën a nemmeeku nag moo di changement yi nga xamante nii dañ koy jot a am comme Ziggy nu mu ko waxee léegi ci comportement solide bi waaye tamit ci maquillage yi ci changement surtout surtout et surtout make-up surtout ci make bi yow moom moo la gën a intéressé. non c'est pas parce que moom a gën a intéressé mais changement yi ñu ci gis dafa dafa gaaw. dafa gaaw et puis euh, euh, par weer bu ne ñu indil la benn affaire bu bees. indi hmm. produits yu bees changer affaire yi changer ba nga xamante ne ni que dafay métamorphoser lu jëm ci ci ci jigéen ñi léegi comme ni ko benn xale bu góor waxee léegi dootoo xàmmeeti kan mooy kan. parce que ñëppay nduroo bu ñu ma wu. c'est c'est vrai parce que nekk na loo xamante ne ni aussi même budul yow keneen ak keneen nemmeeku na ko même man yow sax des fois damay dem ba benn moment buñ ma joxee benn produit sax du ko xam parce que léegi maquillage bi la ñu mettre en avant que euh, suñu beauté naturel te loolu c'est à éviter 2019 bi nag ci loolu laa nar a ñëw indil leen li nga xamante ni moo di beauté naturelle indil leen ay produits yoo xamante ne ni euh, ñun ñoo ko moom c'est naturel sans danger euh, mën nañ ko utiliser pour gën a mën a améliorer suñu beauté parce que aussi mënuñu ne dañuy toog rek ci nu ñu mel. Mhm. des fois dafay baax nga jëfandikoo maquillage des fois dafay baax nga dem euh, institut de beauté defar say tànk defar say loxo loolu lépp dafay baax ci jigéen mais également am na ci loo xamante ne nii dañ ko war a bàyyi xel mooy set ci suñu bopp comme nañ ci dalalee woon na euh, Maya mu mhm. wax ñu ci li nga xamante ni mu di odeur yu jigéen di am loolu tamit nekk na loo xamante ni dañ ci war a bàyyi xel su ñuy wee pose ongle topp ay cils ba fàtte li nga xamante ni moom mooy suñu ay le plus important mooy suñu corps <laughs> mooy odeur vaginale yi mooy euh, aisselle yi mooy suñu ay parties intimes yéen li ngeen ne un un bi yéen ñaar nii. non MLK moom. Eh, eh, mais arrêté leen yéen ñaar li ngeen ne un un nii. MLK naa Balde. waaw mu koy <laughs> bëggoon naa bëggoon Kumba en ñu def benn arrêt si utilisation rouge à lèvres bi di def parce que à la base. rouge à lèvres je crois créé woon pour les tubaab parce que ñoom naturellement elles ont des lèvres très fines donc c'est pour mettre en valeur pour mais da ngay gis sénégalaise ah, boo xam ne dafay am 5 kilos de lèvres jël rouge à lèvres mais tay ko ci gémmiñam bi ba loolu rek voilà c'est de la violence voilà faut pas que mu topp ñu 2019 c'est vrai j'abandonne da ngay mel tu as l'impression que ne nit ki diwlin la def ci tuñam rouge dañ ko créé pour sa genre gi macha allah surtout ñu yem na ute na ak sama bos. xam nga ci cosaan sax da nga naan gis jigéen bu tuñam xonqe. Hmm. dañ naan ko na wut gerte ak euh, da koy daf koy euh, lakk bu mu ñuul kukk. Ah. ko di ko def si tuñam ba tuñam ñuul mais léegi vraiment c' est. mais leneen leneen li gën a c' est de la violence. <laughs> violence visuelle. leneen leneen li gën a leneen li gën a graaw na bu. c' est de la mondialisation. leneen li eh, gën a eh, arrêté nag yow. non arrêté eh, wax leen ko ah arrêté. itam beneen forme de violence lii lan la ni <laughs> lii beneen forme de violence. mais nabu yéen yéen a ngi wax ay rouge à lèvres mais y' a un problème boo xamante ni wax nañ ko bàyyi xel mooy góor yi nga xamante ni dañuy utiliser produit. ah wallaay wax ci pour am ay tuñu rose. 2018 bi parce que 2018 bi. ku amul tuñ bu rose ah, bokkoo ah, mais gis naa euh, par un Nigérien mm. mu ne dafa bëgg jaar si matinale bi pour mettre en avant ces produits yi nga xam c'est pour les garçons qui veulent avoir des lèvres roses ma non du ci ah. parce que apparemment en fait l'effet recherché c'est quoi le but non c'est juste pour le but d'être frais d'être sucré mais ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens loolu lépp ci beauté à tout prix la mais mais attends même en dehors produit dégg na am na ñoo xam ne ils prennent du sucre en fait pour frotter ko mu nekk genre plaie. Mhm. sucre beeg la ñuy jël di ko frotter. c'est vrai ça existe pour rôti seen tuñ bu ñu taxawee di wax ak jigéen di màcc tuñ duñu topp 2019 <laughs> loolu waruñu topp ah. <laughs> loolu duñ topp ay ca kumba loolu lay jeexal d'accord ah bon loolu la ñu mënoon tënk euh, ci wàllum beauté bi kon daal euh, naturel nañ ko xaar ci 2019 naturel dinañ ko xaar ci 2019 kumba gisee dina ñëw beneen facette ci rubrique beauté indil leen suñu produit yi nga xamante ni mi ngi fii hmm. mettre ko en avant pour am suñu beauté mu jëm ci wàllum karaw maquillage pédicure manucure tout naka ngay def parce que pose ongle sax damaa bëgg xale jigéen ñi bàyyi ko ah. ndax sama genre gi dama bëgg ñu bàyyi ko donc loolu lépp dinaa ko indi ci 2019 bi maa ko wax naa ko def incha allah ah, di permet moi d'abord di euh, profito ci occasion bi di nuyu euh, ñi nga xamante ne ni ñooñu yàgg di seetaan ci seen émission ce matin seetaanu parce que c'est pas évident euh, ngay def émission le matin nit ñi di xëy di la seetaan di la bàyyi xel ba également di la jox ay suggestions di la defal ay critiques mais également di la féliciter ñu ngi leen di jaajëfal ils sont très nombreux a lim ñoom ñëpp mm-hmm. mais ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewlu di wax également ci 2019 bi ñu jëm. Mhm. Euh, yàlla nañu yàlla may euh, kattan. Mhm. Euh, xol ak yéene loolu maa ngi ciy ñëw incha allah bi damaa bëgg je parle même pas de la rédaction mais toute la 2STV yi jigéen célibataire yépp am jëkkër bu ko mënul sax nag ñu xool góor yi ak jigéen yi ñu xool ñu ji fi jaafa ñu ji fi jaafa jëfa tëfate même ñi am jabar sax genre MLK yi xam naa ne mi ngi fiy xool deuxième ci at ñu jox ko ah, MLK tu es d'accord jërëjëf Koumba ah, ah, euh, fi mu ne jeex na merci <laughs> non di wax rek parce que benn point la bëgg a na Nabou Ndiaye mm-hmm. parce que bu ñu dem 2019 2018 euh, mun nañ jàpp ne émotion am na ci tristesse am na ci mbégte am na ci mais damay ñaan 2019 yàlla defal ñu sutura. Mhm. parce que dinga nga gis des ni nit toog di dox fekk am na xol euh, am na ci xolam nakar boo mhm. xamante ne ni mënu ko génnee di ñaan yàlla nag yàlla saafaraal ñu ko ci 2018. 2019 mhm. gën 2018 bu naree ñaaw nag mu mel ni 2019. yàlla indil ñu ci xéewal bu bëri wërsëg euh, yàlla bàyyi ñu suñu liggéey ñu mën a toppatoo suñuy waajur aussi am. xéewal bu bari mu ngoog jërëjëf ni ma ko waxee sànq dañu dem ànd ak Jean Michel xam ngeen euh, sama jëkkër la moom mercredi bu jot 100 francs lay dugal te 200 la dugal yow yaa seede woon loolu 200 moo dugagum Jean Michel daw ma nii gëj naa ko gis mercredi su ma ko woowee ko tu viens mu ne ma no nañ dem seetaan li nga xam ne jot nañu ko indil moom itam muy lu am solo ci plateau matinal bi. xam nga man yàlla dafa def damaa damaa damaa yàgg si wàllu politique may ñaan yàlla réew def fi jàmm 99 euh, dafa am benn maire bi nga xamante ne ndeysaan dund na ba am 109 ans am 10 000 eh maire bi mm. mësta am 10 déet waay. bu fekkee dafa ëpp rek ma wàññi. déedéet demal ah kay waaw maire bi maa ñëw fekk fu mu toog mën na ko yaay buy mu ne ah mën na koo laay waat day woote estat Amadou Barry waaw. mais bu la fekkee nga naan ku ngeen àndal laay wadd am nga 10 000. Eh, fekk maire bi da doon yor ay 9000. 1000 fanaan dese ko bi jaar lépp. mu jaay lépp yoraat 9700 300 dese ko mu jaar lépp. yor 9950 300 fekk dërëm dese ko mu jaay lépp. maire bi maa ko ko wax samedi 20h laay wadd war a ñëw dimanche midi maire bi fu mu toog la toog naan ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal laay wadd ma ne ko maire laay wadd suba lay ñëw di. Ah. mu ne ah damay répété di. <laughs> ma ne ko kon doxal. laa wadd war a ñëw midi mel bi yow huit heures ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal laay wadd ku ngeen àndal ku ngeen àndal laay wadd ku ngeen àndal ku ngeen àndal ba dix bi noppi déet waay wax énergie la la mel bi day jékki-jékki naan ku ngeen àndal ku ngeen bi noppi ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku laay wadd ku ngeen ku ngeen ku ngeen ku ngeen ba 11h58 maire bi commencé seen Ablaye Wade di jege si maire bi mënatu wax ku ngeen àndal lay jékki-jékki naan ko ku. ngeen ànd. boobu jeexal na laal waat 11 bi seen Ablaye Wade di ñëw mu naan ko ah waat double V waat. ñu di biir laay wax dañu maire bi nee de koy liyaar naan ko moom moom bu yàgg. laay wax maa ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay. waaw yàlla am na ko. di am mbégte ak kontante bu mag yàlla am na ko teew ci seen palaato bi waaw yàlla na jëm kanam liggéey bi rafet na yàlla am na ko. seetal loolu seetal loolu seetal loolu yàlla am na ko. yéen a xam lu ngeen bëgg ak na ngeen ko bëggee. maa ngi ñaan yàlla defal leen ku ndax liggéey danga koy jox ak xam te yéen a nga ca mu am solo mu solo liggéey la yàlla wax. waaw pur ngi sonal politiciens yi grave lan la secret. bi mooy delluwaat ci alxuraan lu wax ak wax xam li yàlla wax. ñu ko véhiculer message yooyu ci papier yi. yow kenn du la dégg te élection da def ay résultat lan la. li ma naan barigo bu def du yëngatu. Ah. yi ngay dégg ñuy yëngatu yëpp ay zeng la. amul solo. amul solo ci laa ne di waxtaan ñoom tactique bi ñuy génnee ba duma gars yi waaw te du te terrain bi ñuy ci sax du bari nit yàlla am na ko. yow est que doo coacher gars yi sax sa équipe nawetaan koñ est-ce que doo leen coacher. yàlla xam na ni ci télé lay wax waaye la may sotti ci ñoom moom la ñuy véhiculer. waaw. lii dëgg la quoi man lu ma fekkee rek laay wax man jom naa toog fii di wax loo xamante damay ñibbi ñu naan kii li ñuy wax xam nga waaw ñaari ko ñaari baay la ñaari baay faal. waaw dañoo jote quoi. di di dox rek oto fiir kenn ki mu mu daanu wàcc. Mm, sedd guy sedd guy saa ñëw def ko saa ne ko mais copain kii nu mu tudd. mu ne ko way kii trois ans ñooy ànd. mais abo la may wax ma koy wax rijaal ba tey xamul turam. <laughs> xam nga. man yàlla dafa def dama. <laughs> ngoog Jean Michel moom euh, la ñuy euh, àndal mercredi bu jot file ci plateau bi ni ngeen ko gisee noonu best of euh, ci ñi nga xam ne jot nañu fee jaar muy ñoom patin wak ñoom cuq ak ñi nga xamante ne ay humoriste lañ teewoon ci plateau ce matin seetaanu na fi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Christina tey noo tudd. Nafissatou Dieye macha ah, allah. ah madame madame maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau nuyu itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan. tous les matins sur ce matin c'est à à tout le monde une bonne et heureuse année 2019 par des faits marquants euh, voilà des faits qui m'ont personnellement marqué le monde de la euh, culture euh, sénégalaise. daal di ànd ak euh, <clears throat> monsieur éducation. monsieur éducateur non ah, stagiaire apprenti étudiant <laughs> balaa MLK di yeeg étudiants yeeg syndicalistes mais beaucoup plus xaritu syndicalistes yi. waaw loolu lañ may étiqueter souvent parce que soo xoolee ci euh, wàllum disponibilité. Mhm. Euh, effectivement euh, redevabilité dafa war a am ci côté nguur gi maanaam ñëw toog ci liñ leen dénk ñu wax si. Euh, dañuy ñi faral di ñàkk jot bu baax a baax da nga leen di woo ñu confirmer la finalement c'est le ministre qui doit décider. ministre parfois day nekk en voyage en tout cas day am luy lalu ci ginnaaw lu bari boo xamante ne soo leen invité. c'est tout un problème Nabou mhm. par exemple nga indi fi quelqu'un du ministère de l'éducation même su fekkee ni secrétaire général bi Ndeye Khady Mbodj ñëw na fi ay yoon te aussi tamit euh, souhaité na fi aussi tamit jàllaat yeneen yoon mhm. mais muy ministère enseignement supérieur de formation professionnelle donc lenteur administrative ñun suñu administration MLK dafa lourd mhm. maanaam pour inviter nit rek il faudrait que mu am approbation chef am mais da ngay gis chef bi sax su voyager danaan la noo xamante ne moo di gàllankoor croissance euh, mhm. économique ak développement au Sénégal parce que Macky wax na ko foofee ca Paris dafa ne dafa am ñett frein yi nga xamante ne tey aujourd'hui mooy empêcher li nga xamante ne mooy développement au Sénégal benn bi muy administration bu yéex mhm. beneen bi muy problème fiscalité bi nga xamante ne Sénégal am na ko mhm. beneen bi muy faiblesse système éducatif sénégalais te suñ ne faiblesse système éducatif sénégalais maanaam ci daara yu kawe la université wàcc ba ci suuf mais soo xoolee sooy def analyse ci faible système éducatif effectivement produits yi ñuy génnee c'est très problématique parce que ils sont pas prêts à à l'employabilité mais euh, problème bi yëpp ci suuf si la donc daara yu suufe yi war nañ xoolaat xool naka la ñuy mën a am benn éducation de qualité fi nga xamante ne moo di préscolaire fi nga xamante ne moo di élémentaire mm-hmm. parce que foofu la problème bi nekk instant bii nii suñu waxee ci système enseignement ci système éducation Sénégal. Mhm. bu ñu waxee 2018 tamit euh, yëngu yeeg yëngali. gisoon waaw yëngu yeeg yëngali mais particulièrement deux dates moom euh, jot a marqué première mhm. date bi de manière chronologique. Euh, mooy 30 avril parce que soo xoolee 30 avril ci la nguur gi euh, jëloon décision augmenter li nga xamante ne moo di indemnité de logement bi. Mhm. Euh, mu nekk ay waxtaan yu bari bari yoo xamante ne amaloon nañ ko demoon na sax ba ñu naan est-ce que année bi du doon année blanche te soo xoolee bi ñu interroger ñi nga xamante ne ñoo di acteurs notamment inspecteurs yi waxoon nañ perte nañ plus de 460 heures. mais 460 heures yooyu ñu perdre ci 1290 heures yi nga xamante ne élèves yi moom la ñu waroon jàng pratiquement moitié bi la soo si jëlee démarrage tardif maanaam ñoom MLK ñoom ay décembre la ñuy ubbi ñoom euh, apo mhm. soo jëlee tamit aussi feet nga boole ko si ak yenn euh, difficultés yi nga xamante ne école yi ñu ngi koy jàll jànkonteel ci wàllum inondation wàllum abri provisoire donc day xool day néew trop élèves yi ca la ñuy toog ci classe bi pour apprendre avec une langue étrangère loolu aussi tamit dañ koy far fa fàtte di mentionner tuuti parce que soo xoolee français bi du suñu langue mais tey jot na aujourd'hui ñu introduire effectivement mu ngi am de manière très progressive am na ñoo xamante ne tey ñu ngi introduire langue nationale yi ci yenn écoles yi lu mel ni yenn ONG ak euh, muy euh, élan ak euh, arrêt donc tey jot na aujourd'hui nabu ñu xool nan la ñuy mën a introduire def à l'échelle nationale suñu langue nationale yi foofee ca école yi ñu mën a jàngale parce que seetlu nañ ñi bi ñu ko introduire ci yenn classes yi mhm. xool nañ ni élèves yooyu ñoo gën a performant élèves yi nga xamante ne tout court dañoo yam ci ci euh, français bi donc loolu aussi tamit beneen aspect la ci système éducatif bi donc yëngu-yëngal yi heures yi ñuy perdre te heures yi ñuy perdre tey soo xoolee muy man muy keneen pratiquement da ngay perdre une année d' apprentissage. Mhm. soo jëlee chaque année élève bi perdre trois cents heures. mais su naree dem ba CM2. Mhm. da ngay gis élève boo xamante ne munul lire. Mhm. donc sur les six ans de lécole élémentaire soo ko calculer nombre d' heures yu mu def ci école bi cinq ans rek def wala voire quatre ans. Mhm. donc di traîner ay lacunes lacunes yooyu lay traîner ca collège ba. lacunes yooyu lay traîner ca enseignement supérieur. Mhm. nga gis professeurs yi tous les acteurs naan ah ba ci e-, étudiants yi ma interroger vraiment. man xaw ma waa dégguñu tubaab ah. wala ceci ou cela donc lacunes yooyu noonu. Mhm. bu ñu gis ni étudiant bi nga xamante ne génn na master mais mu ngi koy traîner depuis bas bi. grève yee ko waral quantum bee ko waral manque de matériel didactique bi. parce que soo xoolee tey am na ne tey problème boobu la ñoom soo xoolee élémentaire dafa am bi ñu fay mëne muy curriculum de l'éducation de base suñu nee curriculum de l'éducation de base mooy approche par les compétences approche par les compétences élève bi ca mu xam ak environnement am ca la mu mën ci loolu lañ koy jéem a taataan gën ko jàng mhm. donc pour loolu il faut mu am ay support didactique mhm. support didactique yooyu tey manqué na ci li nga xamante ne moo di euh, école pour ñu jeexal xëy na wax ci li nga xamante ne moom mooy perspective yi parce que gis nañu nguur gi toog na ak syndicat jàngalekat yi neuf euh, syndicats yi nga xamante ne ñoom ñoo ko. six plutôt mhm. muy G6 bi. Euh, bi ñu toog ñoom am na lu jot a xaatim am na loo xam ne nguur gi tàmbali na ko. Mhm. en 2019 est-ce qu'on peut s'attendre à une année scolaire bu nga xam ne peut-être dafay apaiser. parce que ba tey xel yi leeragul. loolu ñaan. Mhm. parce que nabu soo xoolee. vraiment ñi ñi sonn nañ man des fois sax ça me de d'être sur le plateau di wax waxi grève aujourd'hui jot na ñuy toog di waxtaan ci programme mhm. man des fois damay invité nit ma ne ko ne me parle pas de grève bu mhm. ma wax waxi grève mhm. wax ma programme politique éducative wax ma ci paquet paquet moom mooy programme d'amélioration de la qualité de l'équité et la transparence ñu war ko amal 2013 ba 2025 wax ma sur le seuil de performance wax ma sur le seuil de maîtrise des élèves aujourd'hui nan la système éducatif war a mën a def pour mën a am euh, benn benn résultat bi mhm. parce que milliards yi ñu ciy investir dafa dafa bari suñu ñëwee nag ci perspective yi nabu euh, vraiment tey nguur gi ak euh, jàngalekat yi ñu ngi amal benn waxtaan mhm. mais comme ni ko acteurs yi waxee tey premier ministre bi nga xamante ne moom mooy diriger waxtaan yooyu noonu tey il se trouve que day toog sax wax benn ministre est-ce que def nga li ministre ne non non kañ nga ko mën a def war a kañ nga ko yaakaar ne soo ko defee dina kii. Mhm. ministre bi joxe tel dat ñu ñëwaat ci même rencontre bi c'est les mêmes problèmes. Mhm. les mêmes les les lu ñu naan les problèmes xaw ma les mêmes causes. les problèmes les les mêmes effets. Mhm. donc problème yooyu day faral di ñëw tout le temps donc il faut ministres yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu njàng beeg njàngale bi. au moins jël ay devant mais du ministre de l'éducation tout court du ministre de l'enseignement supérieur mhm. ministre de la fonction publique ci la bokk parce que acte d'avancement bi nga xamante ne enseignant bi war na ko am def na dix ans vingt ans mais acte d'avancement boobu ministère de la fonction publique wàllum urbanisme wàllum euh, habitat wàllum bépp wàll donc du ministère yi nga xamante ne ñoom la concerné directement mhm. mais ministère yu bëri et c'est des questions transversales donc yooyu tey vraiment yi war nañ ci jël war nañ ci am taxawaay bu rafet pour mhm. mën permettre élèves yi jàng parce que soo xoolee élèves yi ñoom ñooy su ñu bëggee am ay édu développement Sénégal ñu bëgg porte euh, porter Sénégal ci benn niveau bi il faudrait que élèves ne te beneen aspect bi nga xamante ne aussi tamit bëggoon naa ko yëkkati muy laxisme ak de des parents d'élèves parents d'élèves yi système éducatif bac 35 pour cent la ñu am amul benn parent d'élève bu yëkkati ne résultat yi baaxul donc dañoo am benn mouvement parental boo xamante ne vraiment dafa passif donc mhm. jot na mouvement parental bi jël yenn question yi mhm. prendre ko en charge exiger ay résultats mhm. parce que jot na aussi tamit ñoom ñu xaalis bi ñuy investir parce que c'est le deuxième bailleur après état xaalis bi ñuy investir mu am fu mu mu muy feeñ bu baax a baax jërëjëf euh, <laughs> dañu wax bi décédé ci 2018. Adja waaw Fallou. Fallou Sène benn problème moo ko indi. mooy retard bourse mhm. donc euh, vraiment jot na. ñu bañ a waxati loolu man su ma déggee étudiants yi naan dañuy retard bourse dañuy grève pour retard bourse dafa rus lu torop mhm. donc jot na ñu indi ay saafara bu baax a baax ci point boobu jërëjëf Apo Mendy géopolitique euh, dinañ ci ñëw léegi Nafi soxna Nafisatou Dieye voilà Aïcha ñu ñëw ci culture voilà Seynabou comme ni ma ko euh, waxee tey ci tout à l'heure euh, bëri na ay faits yu nga xamante ni euh, marqué na ma comme ni mu marqué le reste de la population sénégalaise parce que il faut dire que c'était une année de rire mais en même temps de pleurs ML parce que boo seetloo on a perdu vraiment de grosses pointures yu nga xamante ni ça a marqué les Sénégalais xëy na fi may tàmbalee mooy en musique pour ñu pour ñu a tàmbalee ci ay jooy après ñu ñu mujjee jooy ah ñu ñëw ci euh, pas yu yi nga xamante ni la musique sénégalaise euh, am na ko ñu tàmbale ko ak Youssou Ndour mi nga xamante ni chaque année dañuy faral di xaar li nga xamante ni moom lay faral di indil ay fansam année bii nag il a imposé le respect et ça a conquis directement këru euh, sénégalais yëpp mu nekk lu nga xamante ni vraiment inscrire nañ ko encore une fois ci registre culture bu Sénégal keneen ka ci topp di Pape Diouf ñuy fàttali ni année bi moom il a fait un très grand xamante ni moom moo di sa carrière euh, euh, musicale mu di euh, li nga xamante ni moom moo di Bercy ba li nga xamante ni amal na ko fële ca Arena bu Paris vraiment siggil encore une fois la musique sénégalaise mu nekk lu rëy ñu ñëw peut-être ci bu loolu jàllee décès Papis Gelongal sa a marqué énormément de Sénégalais mu ñàkkoon bakkanam ci accident bu métti fële ci autoroute bi noonu itam barki Dembo Ndiaye la Habib Faye génn àdduna yooyu itam le monde de la culture nekk lu nga xamante ni duñu ko fàtte le cinéma a eu énormément de prix aussi sëy na bu bu ma toogee fii di ko énumérer xëy na du ma fi euh, jóge bu cinéma bi jàllee itam ñu ñëwaat xëy na ci Mbougar saax mi nga xamante ni euh, vraiment euh, arrêté wul benn yoon di siggil li nga xamante ni moom moo di le monde littéraire sénégalais mu nekk un très grand succès nekk une mu ko mën a woowe une grande fierté pour la population sénégalaise ci yenn livre yu nga xamante ni représenté na partout le Sénégal beneen fee bi ci gën a marquant itam bokk na ci le retour de Aminata Sow Fall mooy suñu suñu yaay boobu nga xamante ni lu mu bind rek wala lu mu xaatim euh, xam-xam la il est revenu avec un bouquin qui a marqué vraiment aussi le euh, monde euh, de la culture rawatina ak mutuelle de santé bi nga xamante ni quand même les artistes l'ont eu parce que Macky Sall a à donner 100 au mois de mars pour que les artistes puissent de santé comme ni ñu ko daan jooyee tout le temps toog ne amuñu mutuelle bu ñu feebaree duñu faju bu ñu retraité dañuy dañuy dañuy sànku noonee la ci njiitu réew mi jëlee ay jéego comme ni nga xamante ni itam le nouveau ministre de la culture du Sénégal mu di mu ngi jël ay jéego yu rëy rëy rëy ci li nga xamante ni moom moo di euh, euh, culture bi na bu en tout cas on peut dire que la culture sénégalaise a connu un très grand pas ci année bi nga xamante ni moom moo di année bi ñu nekk mu di euh, l'année 2018 certainement temps bi daf ñu tënk sëy na boobu du ma yow xam nga parce que tout au long de l'année ñoo fi nekkoon xëy na may accompagner ci li nga xamante ni moom moo nekkoon sama rubrique fee yi bëri na ñu jàpp ne daal c'est un pas en avant ci euh, acteurs culturels yi ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di suñu ay ministre de tutelle waaye itam ci artistes yi nga xamante ni ñoom euh, euh, monde xanaa rek souhaité waat encore une fois une bonne et a année 2019 à tout le monde di baalu ak sama yaay encore bu baax a baax parce que ku ne xam ne ni journalisme culturel yombul da ngay dem ci spectacle concert yi di dem ci sabar yi ci lu ne rek saa yu ma ñëwee bu ma fëggee mu tijji ma sans troubadour ah eh bien troubadour la ñuy wax sans troubadour waaw maa ngi koy maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu gudd fan bu baax a baax année bi tam li ma ci gën a marqué bokk na ci sama génn àddina maam moo jur sama yaay mu di maam kanayel benn tax ko kan yàlla na ko ah sinon <laughs> emel emel dëgg yàlla na ko yàlla yërëm seen bu en tout cas maa ngi baalu ak sama yaay bu baax di ñaan sama papa gudd fan ñu fekkee 2019 en beauté nous tous ñaanal itam nenn jiy bu baax a baax nday màgget ak sama famille yëpp seen bu ba ba année 2019 nag li ma bëggul mu topp moom mooy célibataire gi ma nekk yàlla nañ ci yàlla musa bu ma topp de waaw passe mbett muy xew muy dëj muy ngénte di mariage vraiment nañ ko bàyyi. ñoom mu topp la Apo loo bëggul mu topp euh, Sénégal triomphé ah. sur le plan euh, régional. Mm-hmm. Euh, continental. Mm-hmm. et sur le plan international. Mm-hmm. déjà fin d'année bi c'est un succès diplomatique avec la nomination. de Mankeur Ndiaye ci discours dafa discours dañuy bàyyi damay profité di nuyu ñëpp ah. j'étais venu en 1 décembre en 1 ah. février te le décembre di baalu ñëpp ak. Mm. ceux qui m'ont compris ceux qui n'ont pas compris. ceux qui mm. m'ont offensé. yow ameloo kenn ak pardon suba la sama anniversaire. du suba la sa anniversaire ñu souhaité le joyeux anniversaire. Ah, waaw Daara Jolof Mauritanie. waaw guddoom maa ngi leen di nuyu. jërëjëf man nag samay pensée dafay dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi. Mm. Euh, ñu ngi leen di xalaat bu baax a baax ñun yàlla may nañu xëy na ñu mën a toog mën a wax parce que tal nañu fekke nañ am nañu fekkee te taluñu. am nañu fekkewul am na ñoo xamante ne ni que tey jii seen xol nekkul ci feetu ñu ngi leen di xalaat bu baax vraiment nos pensées vont vers ñooñu suñuy xalaat itam dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci 37 prisons yu Sénégal euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sama xarit bi ne ca Rëbës di Papis Konaré mon grand je te fais un di la ñaanal yàlla rek la la fa dugal yàlla def mu génne la ci defal noonu itam say moroom gërëm ñëpp sant ñëpp toute l'équipe technique de la matinale ñu ngi leen jaajëfal ñu ak Kane Diallo rendez-vous ce bu leen ko fàtte euh, ci 2STV Kane Diallo ñu jeexal ak moom jaajëf Guy fun my baby, fun my fun my. salaam lu xel xalaat xol bi yeggoo sama mere may bëgg a dee baby kaay jege ma jege ma waay Babacar Sy Malick wal ma Asimi Njaay Njaay jaata Njaay capitaine